xew-xew bëgg nga ah. ah. ay xew yu muy wax ne fekke na ko ay wax yu muy wax ne dégg na ko su ko defee fànn yi adabul arab yi de waxee nag lu ci bëri dana ci am dana am xutba dana am itam risaala dana am itam wëy ku ne chenru lu boppam la xitaaba lu boppam la kitaaba lu boppam la hmm. waaye yooyu yëpp dana ci am nag ki jëkka bu ko defee kii nettali li muy nettali dafa am kum koy askanee kooku moom la ñuy tuddee batalul maqaamaat ki nga xam ne moom mooy nettali ñuy dégg ñi ko tuddee rawil maqaamaat ki njëkka noose ay wax tuddee leen ci xanam boobu tuddee ko ay maqaamaat mu ngi tudd Ahmad ibnul Husayn si woon ba dima samaan al-Hamadani xarit yi dana ko tudd ci biir téere bi insha allah moom nag ku yàgg la yaakaar naa ne mën na junne at fi ne ñu ngi ci deux mille douze de ah mille sept ci la génnoon àddina waaw ku yàgg la nit la woon ku ko woon ci am ak fasaha ak mën a mukkal moo njëkk a liggéey ay wax tuddee leen ay maqamaat yépp jëm ci kur mooy wéyaan ñaanaan ñu nekk ay maqaama yoo xam ne daraja bu kowe kowe ci la àgg ci fukkaaha mm-hmm. daraja bu kowe kowe itam ci la àgg ci fasaaha mm-hmm. xam naa na xaw na jëm nag ci waxi xàlle tuuti nan la fi xaw a gañee waaye fukkaaha fi mu ci àgg mm-hmm. moom xari bi sa àgg ci dëgg dëgg dëgg dëgg ay maqaama tamit ñoo gën a gàtt maqaama yi gis naa ci yoo xam ne gis naa maqaamaat ba dina samaan gis naa ci loo xam ne gisuma ko mooy léegi batalul maqaamaat fi mu nekkee ab ab dof di wax ay wax yu toppiwul loolu amul ci maqaama bi abul bari askan bi bu nekk benn dof di moo ko njëkk def am na ñu ne ibnu Duraydin moo njëkk a def ay maqaamaat waaye loolu moom siiwut te ibnu Duraydin waxtaan yam bindoon buutee nag noo sehinu ay maqaamaat hmm. te itam tuddeewut leen noon ay maqaamaat waaye nag bind wax mu déggoo noo sehinu ay maqaamaat nga tuddee ko ay maqaamaat hmm. loolu moom dëgg-dëgg xamuñ ku ci jiitu ba déma samaan hmm. waaw gannaaw buñ demee bëpp diit nag la ci hariri yu topp génne maqaamaat yi ñu bëgg a jàng insha allah hmm. mu nekk maqaamaat yoo xam ne yu rafet la ci hmm. wàllu usloo hmm. yu rafet la itam yu am njëriñ la itam ci gindi nit ci mujtama bi mbokk ni mu cee dundee nekk maqaamaat yoo xam ne yu am xabool la ci biir nit ñi itam waaye mu nekk liggéey boo xam ne hariri yu ku ci sonn la ku ci yàgg la daanaka mooy bintu xomri yi daanaka moo lekk dundam lépp daanaka moo ko lekk ci sonn la gannaawam xam na ay bindkat yu fi topp wax ne dañoo defar ay maqaamaat waaye kenn ci xàggut fi hariri yu xàgg nag ku mel ni Saraqusti bind na téere tuddee ay maqaamaat ku mel ni Jalaaluddin Suyuti bind na téere tuddee ay maqaamaat waaye ñun ñëpp kenn ci xàggut nag fi hariri yu xàgg nag kenn ci xàggut ci dayoom bi ki ko jege daal mooy naafiful yaafe ji bindkatu lim nañ ko dee ci wàllu usloob moom usloobu hariri la jël moom la jël ci wàllu fukkaa xàggut fi hariri yu xàgg waaye ci wàllu xam-xam nag moo gën a riis le ndax mu maqaamaatam xam na mantiq xam na tibb te loolu am ci maqaamaat yi ci wàllu mañari baari xam na yuñ def yoo xam ne hariri yu defu ko kon ñu jàng ko rek xamee ko noonu bu ko defee itam booy jàng maqaama bëri na ay waxi kaf yu ci nekk xarit yow mi ko ci def da ngaa foog ne caaxaan la woon waaye jàng na rek moo ko tax a def hmm. waaye nitu yàlla ku mag a mag la woon jaamukatu yàlla ku ràññeeku woon la ci jamono hmm. mu ne allahumma hmm. yow buur inna ñun nahmaduka danañu la sant ñu lay sant alama ci li nga xam ne àllamta xamle nga ko minal bayaani ci leeral ci biral ñu ngi lay sant ci ni ñu xamale mooy ni ñu indilee xam-xam bu leer wax ñu lu leer waa xam sa te nga yenk bal ko minal tibiyaani ci biral ñuy la sant itam ci ni nga defee ñun mën a xam wartagal ñu xamal biir bayaan day doon biral ak kaw taalim da doon xamal ak kaw wax mu leer ilaam xamal ak biir lay do hmm. tibiyaan itam xamal ak biir lay do hmm. ah, def ci xel mi mën a xam hmm. xamal gu mu mën a doon ci yàlla lay boxoo mu ne mu ko ciy sant kama naxmaduka ni ñu lay sante alama ci li nga xam ne asbaxta jotal nga ko mi ne naa tàyyi ci may ñu ngi lay sant itam ci say may ni nga ko yaatalee ci ñun ndax am kenn kenn koo xam ne benn jamono danay tàggoo xewalu sama loolu mel na mbindeef mel moo xam ne amul benn jamono boo xam ne nekkul di jonjoo xewelu sama borom loolu am na waas balta te nga sa mbër tël ko minal xitaa yi ci muuraay ñu ngi lay ñaan itam ci nit ñi suturaalee ndax ku mën a doo ci ñun rek yàlla xam na ci moom loo xam ne bu ko wuññi woon moom dootu jaral kenn dara waaw kon man moom la ñu ngi lay sant ci li ñuy jox ni ñuy suturaalee wana xoodu danañu muslu bi ka ci yow min sirati lasani ci bon ak fasaha mën mm-hmm. a wax goo xam ne yàq lañ cee defee mën mm-hmm. a wax goo xam ne xalaku lañ ciy defee mm-hmm. ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci wa fudulil hasari ak desiti be benn mooy coowal neen rek loo xam ne fajul benn njëriñ loolu itam ñu ngi lay nga musal ñu ci kama na ni ki ñuy musloo bi ka ci yow mi maasatin lëkkani ci ayibi dotom waa sikki si tële wax mu leer lug na mooy safaanu fasaxa ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci wa fu dooxi ak gàcce takku tëju dem ba bëgg a wax wax jot te mënoo jëriñe ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci gàcce googu wana tag fii danañu sàkkoo fegoo bi ci yow aliftina alifitaane fitna woo bi itra il maadihi ci xaaba balak aji tagg itra mooy nit ki dalay tagg bay wax lu nekkul ci yow waaye moom lu mu bëgg a wala na lu mu yaakaar ne moo lay neex rek ñu ngi la ñaan tagg yu demee noonu suñ mën da bañ kenn def ñu ko itam ñun ñu bañ da ci naxu wana sak yi danañu sàkkoo fegoo bi ka ji alipitaanu fitna ko bi itra il maadihi ci xaaba balak aji tagg bay wax daa il musaamixi ak dummoyu aji jéggale ñu lay ñaan itam bal maanaam dummoyu ku lewet bale ku lewet buñ ci naxu waaw nit fekkee dafa lewet dafay bëri lu mu mën a faj mm-hmm. da ko dummoyu mm-hmm. da kee dummoyu googu léeg-léeg nag dana nax nit waaw mm-hmm. ah, ba foogee ndax am na lu mu mënal kii suba nag bu bu na fayu jot na bu fayoo rek dafay métti lool kon daal naxu ci mbiram kër yi ba xadabul karim yi dañu dal loolu moom bu ñu ko nattoo kamanastak fii ni ngi ñuy sàkkoo fegoo bi ka ci yow sampu li israel xaadi yi ci xeebeel ak aji jam ñu la ñaan nga musal ñu ci ñuy nekk ci lu jagut ci ñun lu xam ne daf ñu jural ñu ñu xeeb waxaat kil faadi yi ak ak xottik aji gàcceel loo xam ne ku ñu bëgg wuñ ñi mën na caa dëgg da xotti suñu xorma loolu ñu ngi lay ñaan nga musal ñu buñ ci nekk mukk wa nastaxfiruka danañu la jéggalu min sawqi sahawaati ci màng ak bànneexi bakkan yi ilaa sawqi jëm ci jax yu lënt yi li ñu bakkan dëjël léeg-léeg dañu dugal ci loo xam ne wóoru ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ji subha mooy loo xam nit mën da wax dagan na nit mën da wax xaram na te ci misaal yaa ngi fii nii mën ngaa dem sa néeg yëkkati saran nga ganaay fekk fa enveloppe teppi ko fekk fa xaalis mën naa am nit yow la ko doon yët fekkut la fa ah, mën naa am nit fa ko fi denkaane siir rek mën naa nekk su fekkoon nit fa dikk ne la am ko mu danga xam ne yaa ko moomal su fekkoon nit fa dikk ne la joxal diw fu ngay xam ne moomu ko rek waaw ah, mooy alxalaalu bayyinun waaye nag lenn ci ñaar yooyu moo xamul xamula fu muy teer yi loolu mooy musta bi loolu nag ñàkk cee jàpp mën naa war a lekk loo moomul waaw léeg-léeg nag bu fekkee soxla xaalis dafa tat nag ah bakkan mën naa rafet lu lekk gi ah bañ far ko lekk rek ba mu àgg kama nastaxfiruka ni ko la ni ngi ñu lay jéggaloo min naqalil xatawaati ci toxal jéego yi ilaa xitatil xatiaat jëm ci tiketi ñaawteef yi ñu ngi lay ñaan itam nga jéggal ñu toxal gi ñuy toxal suñuy jeego da ko jaarale ci yi mooy yàlla wana saw yi bu danañu mayu min ci yow tawfiqan dëppale qaidan bu daa aji wamat ilarus di jëm ci njub bëgg nañ nga may ñu tawfiq tawfiq mooy ñu bind ci yow kàttanal def lu baax lu jafe la nag jafe gim jafe moo tax ba dépend yoon la ñëw ci alquran mi wa ma tawfiqi illa billah waaye teewul kuñ ko may rek dana ko am moo tax nga ne yaa ngi ñaan yàlla mu may la ko wa qalban ak xol mutaqalliban bu dee aji jàllar beku maan xaqi ànd ak dëgg xol moom man la dal benn baal rek du xelaat du xenu fenn waaye nag ci yërmande yàlla def na dëgg muy lu yaar ñu ngi lay ñaan suñuy xelaat fu mën a jëmit na def woo xam ne dañ faa jëriñoo rek waaye duñ fa sànkoo mukk suñu xol ne ànd ak dëgg bu ne waaw suñuy xilaat fu mu mën a jëmit waaw na def xam ne jagal lay do rek ak baax ak mbir rek waaye doon fu ñuy sànkoo wa lisaanan ak làmmiñ mu taxalliyan bu daa ji takkaayoo bi sidq ci dëggal ñu ngi lay ñaan itam suñuy làmmiñ nay taaroo wax dëgg bu ñu nattoo ñiy bokk ci fenkat yi ndax salte bu toll ni fen ci gémmiñ amul salte bu toll ni fen ci gémmiñ ko amul wunul xan ak tudd mu ayyadan gëre guñ dëgëralee bi lu jëti ci lay ñu ngi lay ñaan itam bu ñu waxee dëgg nga jox ñu lay koy dëgëral ndax dëgg gi la koy dëgëral soo amut la mu war du ko lëggéey wa isaabatan ak jubal zaidatan ku daa ji dàkku xanni seexi walis njeng nga dañu dëppaleeg sawaab ci suñuy pas-pas dañu dëppaleeg sawaab ci suñuy jëf dañu dëppalee sawaab ci suñuy wax ba nga xam dañoo mucc ci njëng waaw duñ fas lu dul noonu duñ defee lu dul noonu duñ waxee nu dul noonu wansimatan ak dogu qaahiratan guraaji not hawan nafsi bànneexu bakkan ñu ngi lay ñaan itam nga may ñu dogu gu goo xam ne dañ ci mën di gañee suñuy bakkan ba liñ war a jëm duñ ci mën a gàllankoor liñ war da jëm duñ ci mën a dugal wa basiratan ak gisab xol boo xam nudriku danañu jotee bihaa ci moom irfaanal qadri xam kem te itam nga may ñu xol yu xeewu def ñu ñuy ñor ñu xam ñun suñ dayoo lu ñoo jural xeebu duñ ko nangu lu yelloowu rek ñun duñu ko yóotu wa an tousin danaa ay ma tax ne wa basiratan ak gisab xol boo xam nudriku danañu jotee bihaa ci moom irfaanal qadri xam kem wantu ne danaa ak nga dimbalee ñu bil hidayati ci gindi ila dirayati jëm ci xam nga nekk suñ ndimbal dañu gindi dañu yóbbu ci xamme wataadu dana nga dëgëralee ñu bil ihanati ci dimbale xaal ibanati ci ci ci biral ci leeral nga nekk suñ dëgër lay ni ñoo dëgëralee mooy liñ bëgg a leeral nga dimbale ñi man di ko leeral watan si mana ak nga musal ñu minal xawaayati ci réer fi riwaayati ci sole nga musal ñu itam ci yi ci bu ñuy def riwaaya bu ñuy wax xawaaya mooy safaanu rusdu waaw mooy safaanu xam nu ñuy waxee desa wax lu jaga wax waaw lu jaga wax bi mooy ko wax leneen ñu ngi la ñaan nga musal ñu ci loolu watasrifana te nga soppat ñu xanni safaati walis ndof mooy defe mm-hmm. fil bu kaati ci mbërante mm-hmm. suñuy wax waxi kafitam mm-hmm. nga dox suñ diggante ak wax lu baaxut a wax lu xam ne daf ñuy indil bàkkaar wala muy xañ jàmm ci suñ diggante ak nit ñi xataa na mana ba danañu hóolu xafaidal alsinati góobi ci làmmiñ yi ba nga xam ne liggéey bi su paree itam bépp kàddu buy lor nit duñu ko jural dañ ci ay mucc ndax bëri na ko safara te hasaidul hasaidul alsina ñoo ko fa dugal wa nuk faa te fega ñu xawa ila saxra fati way yongaani naxaat yëf yi nga xam ne léeg-léeg mu nax nit ba suróoxal ko ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci ci liggéey bii fala narida duñu root mawrida ma sëmatin root waaye bàkkaat subaa duñ dugg ci lu ñuy indil bàkkaar wala naqifa duñu taxaw moom xifa mandamatin taxuwaayu réccu duñ naan suñ yëgoon duñ ko wax mbaa duñ ko bind wala nur xaqa defu ñu togg bi tabiatin xaq jàmbur duñ ñu naan tooñ ngeen diw sàngam wala maxtabatin du càggeen yeddeel duñ ñu naan li ngeen wax waroon war leen ko woon a wax wala nur jaata defu ñu loruloo ila maxdiratin jëm ci ngànt xam baadiratin ci rëcc rëcc baxee koo ci daal xam luy tax ñuy nekk de layaka jéem a rasaabal loolu moom yàlla bul ñu ko nattoo musal ñu allahumma yow buur fa xaqiq yàlla na nga dëggal lanaa ñaxal ñu haadihil muniyata mébét mii mébét mii yaa ko mën a saxal mu am yàlla nag ñu ko saxalal waanil naa te yàlla nag ñu may haadihil buxyata càkkutéef lii càlkutéef bi yaa ko mën a joxe ñi am ko yàlla nag ñu ko jox wala tuuti naa yàlla bul ñu dàq xam si li ko wali sa ker ak saa fexe guddaa ji jot sa yërmande ak sa mbaax gi ñëpp xaj koo ci boole mu bokk ci ah yàlla nag ñu ci boole rek mooy sa ker bi nga xam ne yàlla ñëpp mën nañ ah boole ñu ci rek yàlla amul ker ndax jomb na ci am ñun liñ xam mii ker waaye yërmande ak mbaaxam nag ah ñëpp xam ñëpp xaj nañ ci xanaa kum ci boole kum ci boole wër rek ay kum ci boole moom dana ci mën a bokk mu lay ñaan bokk ci rek wala tuuti naa yàlla bul ñu dat en plus les cavaliers sa ker ak saa bëri bu daa ji jot wala te ñaan naa te yàlla bul ñu def mudxatan ñu di lumpu lil maadixi ñaal aji lumpu yàlla bul ñu nattoo ñuy ñu lañ ci rek mooy heure bu rek nit ñi dañu ŋàññi ñu nekk ci gémmiñu nit ñi ñuy ñu xas loolu yàlla bul ñu ko nattoo ah ndax it kenn bindu téere hmm. te jublu ca bind ga jox nit ñi deram bi hmm. lu lay neex nañ ko wax loolu amul hmm. ah walam yusannif ahadun fil ilmi li yusi an naasa makaana dammi amul kenn ku bind téere ndeg jublu ca bind ga na ko nit ñi man de xas rek te nag téere day boole nit ak nit ñi moo tax ah walam yusannif ahadun fil ilmi li yusi an naasa makaana dammi amul ndax kenn bind téere wax dëgg yàlla wala tañaan na yàlla bul ñu def mudxatan ñuy lump lil maadaxi ñaal aji lump faqad madad naa tàllal nañ ilayka jëm ci yow ya dal masalati loxo laaj dékk nañ la loxo dékk gi yëpp na bëgg ci li nga am rek waaye ñun mënuñu laa defal dara wa baxanaa tudd nañu bilistikaanati ci toroxlu la kañi xàlla ñun ñépp nag xam nañ ne tolluwuñ fi yow nen ay jaam rekk lañ wal maskanati ak ñàkk ñun ñépp xam nañ ne ay masakiin la ñeen dabab yi watantal naa sàkku nañoo wàcce karamaka sa tedd nga aljamma gudaa ji bëri léegi nag nga jëflante ñun ci sa mbaax gu rëy gi gu bëri gi moom lañu bëgg wa fadlaka ak sa ngëneel alladi ngëneel li nga xam ne amma matale na ak itam nga jëflaa dañu ci sa ngëneel li nga xam ne dañ na bindeef yépp bi daraxati talabi ci toroxlu gaa moom sàkku la wa bidaatil amali ak marchandise ma moom mébët la ñun nag mënuñ lay wan lenn xanaa toroxlu la rek war na ne la bëggal nañ la xamuñ lenn luñ mën a jëndee sa mbaax xanaa rek dikk ne la yaakaar nañ ko rek bi daraxati talabi ci toroxlu sakku wa bi daatil amali ak marchandise ma moom mébét la su ma su ma topp bi tawassuli ci jottale ko bi muhammadin ci muhammad ak itam jaaree ci ki nga def muy suñ buntu ci yow muy sa yonent bi muhammad sayidil basari kii sangab nit ñi muhammad mi nga xam ne sang ci nit ñi basar mooy nit mën nañ koo jëfandikoo muy mufrad muhammadun basarun mën nañ ko jëfandikoo muy jamo in antum illa basarun dafay ñëw lil farde walil jame waaye muy nit nag wa safee tada aji tinu al musafa e kade kuñ tinu loo fil baxsari ca panguwaay ba yowmal qiyaama mooy dimbale ñu bari ñi xam xiw ca kanam yàlla muy que sama borom xeyale safaatul kubra ak yeneen xeeti safaat alladi mooy ki nga xam ne xatam ta mott lenga bihi ci moom annabiyin yonent yi mooy ki nga xam ne ci moom la yonent yi àggee gannaawam kenn mayu ci wasu fi ay tëddaa ji tinu almusaffa këre ku ñu tinu loo fil maxsari ca panguwaay ba moom lañ xeere safaatul kubra ak yeneen xeeti safaat alladi mooy ki nga xam ne xatam mottalee nga bihi ci moom annabiyiina yonent yi mooy ki nga xam ne gannaawam nabi yu dootu amati mukk loolu la ko lëranteeg ñun kenn waru koo xoote wa ahlayta te nga koweel darajatahu darajaam fi hen li yéen ci hen li moom nga jo def mu kowe ñëpp daraja ci àjjana ja nga xam ne ibadullahi almuqarrabuun ñoom lañ ko xadul muy hen li yoon wa te nga mellal ko fii kitaabika ci sa téere almubiin bu daa ji nga melal ko ci sa téere bi di alquran fa qulta nga wax wa anta te yow asdaqul qaa'iliin yaa gën a dëggal ci way wax yi nga wax te ku wax ku ne nag yaa ko gën dëggu kàddu nga ne wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaaka yónni huñu la illa rahmatan ndare ngir yërmande lil alamin ñi al bindeef yi waxuñ lil muminina yonent bi yërmande la ci mbindee fi yàlla lil kafirina wa lil munafiqina wa lil muminina kenn ku ne gam doxee yërmande ci moom ah rahmatun lil muminina bil hidayati illa ma fihi saadatul abadiya wa lil munafiqina bi safi wa tamini min al qatli naafiq yi mënoon na da leen weer waaye nag daf leen di bàyyi rek ñiy dund mu am ah, maanaam ñaami melow lislaam rek rahmatun lil munafiqina bi safi wa tamini min al qatli wa tamini min al qatli waaw ah wa rahmatun lil kafirina bi taxiril azabi ah xéwal bu doon balaa koy soog nga xare dana ko ci lislaam dana waxtaan ak moom ci jiwu ah yëpp day am njëkk fi nga xam ne mbugal jotul du rahmatu rahmatun lil muminina bil hidayati ila ma fihi saadatul abadiya ila saadatil abadiya hmm. kenn ku ma tax ilaa rahmatan lil alamina la wax ndax yërmande la ci ñëpp kenn ku nekk nam doyee ci moom yërmande rek noonu la waaye yërmande la ci ñëpp nag allahumma yow buur fa salli yal na nga def salaatu alayhi ci yonent bi wa ala alihi ak ñooñam ñi mooy atqiyaawu ummatihi alhaadiina ña de way gindi wa yi ak i sahabaam sahaabi yu mooy ku jamono hanteeg yonent bi te boo mu bokkoon ci julin ñi te ngëm ci la sax ba dee ci man naa am sax yàggut ak yonent bi génn àddina man naa am sax duut borom xam-xam mën a nettali dara ci yonent bi waaye lu mën a xew jamono yonent bi moom bokkoon na ci julin ñi te julin googu ca la dee kooku mooy sahaabi yi alladina ñi nga xam ne saadoo yëkkati nañu addiina diina ñoo ñi nga xam ne ñu daan gàddu seeni jaasi ba de de wër bi de xeex barab yu bari ñu ubbi ko dugal fa lislaam wajal naa yal nag ñu def muttabiay na ñu de way topp li hadihi gindig yonent bi wa hadihim ak gindig sahabaam yi gindig yonent bi ak gindig sahaaba yi mooy ñooñ yoon wañ jaaroon ñun yàlla nañ bokk ci ñu cay jaar mm-hmm. mooy yàlla nañ ñu boole ci jullit ñi bëgg sunna mm-hmm. ndax topp sunna ci la jullit mën a amee niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wan faanaa yàlla nag ñu jëriñee bi mahabbatihi ci sopp yonent bi wa mahabbatihim ak sopp asaabu bi ajmain boole seen yàlla nag ñu warsagal sopp yonent bi defal ñu ci njëriñ warsagal ñu sopp asaabu nabi defal ñu ci njëriñ innaka naka yow yàlla qadirun aji man nga ala kulli shay'in ci lépp la yow yàlla man nga lu ne liñ ko ñaan ni nag ci biir lu rek la dugg kon mën na ko mën na lu liñ ko ñaan ci biir lu rek la dugg wa jadirun te aji xeyoo nga bil ijabati ci nangu ñaan te itam ku xeyoo nangu ñaan nga ndax am na te karim la lan moo tax wa baadu gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi fa innahoo naka luy mbir xat jaraa dawoon na bi baadi andiyatil adabi ci leen lenn penci adab alladi adab mi nga xam ne rakkada dal na fi asri ci jële jamono riiwoo ngalawam waxabat te fay masabihoo ay lampam mu ne adab mi nga xam ne jamono bi mën nañ ne dafa daanu ngalawam huppatul bu baax ay lampum tàkkatul bu baax te nim ko waxee dëgg la ndax jamono bi xabrul inhitaar de tàmbali jamono boobu ci leen bind maqamaat yi adab dafa am biit buum daanoo xam dafa adabul jaahil yi mooy adab ci njëkk lislaam ak adabul amawi ak adabul rashidi walla adabul abbasi ak adabul inhitaat ak adabul nahda waaw dafa am jamono bu mu daanu woon bi la buuraat xasru bi ñuy wax xasrul inhitaat nag ci fi mu tàmbalee soreewut ak bi ñuy bind maqamaat yi xëy na loolu moom yëg na ko yëg na yëngatu yi xam-xam yi ni mu demee mu gis ne nit am na yenn ñu gën a siiwal ci adab moo tax adab mi nga xam ne jamono bi ngelawam bu pul bu baax e lampam itam takkuñ bu baax da caa amoon sigrul maqaamaati tudd ay maqama dañ ca daan waxtaane ay maqaama allati maqaamaat yoo xam ne ibtadaaha fentoon na leen badihu zaman badihu zaman maqaamaat yoo xam ne ku tudd ahmad ibnul husayn teñ de ko laqabale badihu zaman moo leen fentoon dafa nekkoon nit ku yéeme ci mën a mokkal nekkoon itam nit ku yéeme ci fasaha ak balaaxa mën a mokkalam xàgg na ci danga toog ak moom jàng xasidaaw juróom fukki way booy daane mu dalee ci way wu njëkk wa yaag moom yaag moom ba ci way wu mujj tëri ko ci dégg bi mu ko dégg benn yoon waaw mën a mokkalam xàggoon na foofu waxaan la matu hamadana te xamaa koonu hamasaan mu ngi askanu fu ñuy wax xamasaan xëy na ci yaman la bokk taxarul ma xam fu mu bokk dëgg-dëgg waaye barab la bu lislaam yàgg nag ah ñoom la Ali ibn Abi Talib doon tagg naan walaw kuntu bawaaban li abwaabi jannatin la qultu li hamdaan adxulu bi salaami dañoo hamdaan wala xamasaan mu ne su ma doon bëkk néegu àjjana kon waa Xamasan dama leen udxuloo bi salaamin walaw kuntu bawaaban li abwaabi jannatin la qultu li hamdaan udxuloo bi salaami dana jasaraa ba sëriñ si mu ngi ca rahimahullah waxasaa xaskanee hoon na nasaataha sosug maqaamaat yooyu ila abil fadhi jëm ci abil fadhi alas alaskandari yi kay ko jug askandar wa mu haskane riwayataha soleg maqaamaat yooyu ila isa ibni hisam ba muy defar maqaamaat yi nag kim def muy batalul maqaamaat yi xam ne moom la ñuy nettali ay jalooreem mu ngi ko tuddee abul fadil askandari ki nga xam ne moo méngoo riwaayatul maqaamaat xam ne mooy nettali lim gis ak lim dégg mu ko tuddee Hinsa ibnu Hisham moom nag fu mu jëlee abul fadil askandari ñun xamuñ ko tey xamuñ ko démb fi jëlee Hinsa ibnu Hisham moom itam ñun xamuñ ko moo tax ne wakilaahuma képp ci ñoom ñaar muy abul fad ak Insa ibn Hisam comme eh, ci mën doon majhulun ku ñu réere la la yoora eh, de su ko xam ñun xamuñu ko wa nakiratun te nakira la ju xam ne la tataarrafu du mu maarifoo su ko defee sabab biko hen ci liggéey maqaamaat yi moom mu nga dëkk busra ca fa ñuy wax banu haram dafa masaam ak góor gu fa ñëw wax ne sërwëj la dëkk waa ruum ñoo wàcc xare ci seen dëkk nangu dëkk ba nangu lépp luñ xamoon léegi nag ñu jàpp doomam bu jigéen doomam bu jigéen boobu nekk ak jullit war a nekk ci kilifteefu ay xéefar te tey mu nekk ci loxo ay xéefar moom la yelwaan xalal jum ko jotee ndax loolu benn soxla fadeeku ko mu nekk góor gu xam ne ku fasaaxa la bari yu muy nettali bañ ko laajee gannaaw bu mu fa bàyyee ko ñaare fu ñu ko waxtaanee rek xam ku wax ne man nag dama foog ne daal ku mbir yooyu daf di liggéeyam man mos naa koo fekk barab sàngam booba dafa layoon nangam ak nangam ak nangam léeg-léeg rek ñu waxtaanee ko xam ku wax ne man mos naa ko fekk barab sàngam booba dafa layoon nangam ak nangam ci la Hariri yu bind benn maqaama ba nga ko bindee wan ko kilifaak barab ba benn muy wasiir ba wala ibnul wasiiri bi moo ko gàcc na ko fexeel ba mu di téere maqaama bi mu ngi ci cat téere ba al maqaamatul haramiya lañ koy wax muy bu njëkk bind ci maqaama yi ndigal loolu nag lay junju mu ne fa asaara dal di junju man koo xam ne isaara tuhoo junjam hukkumun hàtte la wataatuhoo toppam xun mun màng la ah mu am kilifa goo xam ne ah waxam def rek lañ ci mën a teg te itam yaakaar nañ ne topp ko njëriñ rek moo am moo junju ilaan unsiya jëm ci ba ma sosat maqaamatin ay maqaamaat moo wax ne mën naa defar ay maqaamaat yoo xam ne adloo dana toppee fii haa ci ñoom tilwal badiyan yoonu badiyan maqamaat yoo xam ne dama ko jaarale ci riwaaya ni badiyan samaan defee ay maqamaatam waye lam yudrik doonte jotul adalion aji soox sa wa dalion lefam aji suur doonte man duumu ku ñuy tëkkaleeg badiyan samaan ca fasaaha ga duma ku ñoo tëkkaleeg moom ca bëri xam-xam ga duma ku ñoo tëkkaleeg moom ca mën a mokkal ga kon duñ morom ci lenn xanaa boog day doroy téef boobu xanaa boog doonte la man damay soox waruma mën a jot ki ki suur fa ma fàttali lanteeg moom bi maa ci li nga xam ne xiila waxees na ko fii man ci ku xam ne allah fa boole na mu bayna kalimatay ne ci diggante ñaari baat wa nazama walla mu wëy wa bi maanaa aw baytan wenn wëy aw baytay ni walla ñaari wëy mu ne ma ngànt lul ko fàttali ko li nga xam ne gaañi dañ ko de wax mu tegtale taalib num jëfee mbir li ñuy wax mooy man allafa kitaaban mu ngi ci sarab yi aw qaala shi'ran fa innama yaridu ala nnaasi aqla mu ne nit boo xamee ne taalif na téere wala mu wax wëy war na nit ñi ni xelam mi toll mu ne war na nit ñi ni xelam mi toll waaw boole na boppam ak nit ñi fa in asaaba faqad istahdafa su fekkee lam def sawaab la fi ne kum ne ak kum neexu di xam na nga def bu mu mënee nu bu ko neexee wayin axtaa faqad bu juumee nag xas na weeru ak li ñuy wax ne la yazaalu almaru fi fusaatin min amrihi ma lam yaqul shi'ran aw yuallif kitaaba nit daal feeg wayu dara binul benn téere mu de ku yaatu fi moom boppam waaye ñaari yu nag lu rek mm-hmm. nañu jot ci moom mm-hmm. ko daal man duma ko wóolu daal nit ñi jot ci moom mm-hmm. loolu laa ko wax mu ne min hada al maqaam ci bile maqaam alladi boo xam ne yaxaaru dana gëlëm fii ci moom alfahamu dégg mu nekk maqaam bu mag boo xam ne mën ngaa xam ak dégg sax waaye maqam bi nim demee man ngaa dem ba ca kanam nga am ngëlmëndi wayafrut te dina ci rawee alwahmu deflewu man nga ci am lënt lënt bu xam ne buy naqade lijjanti la wayus baru te def na ci nattoo xawrul xàqali xóotaayu xel man ngaa dem ba fa sa xel mën a xela mu dem ba xem fa te li maqam bi laaj doo ko man yow wata tabayan te dana ci biri qiimatul mari xaymay waaye fil fadli ci ngëneel te itam maqam la bu xam ne daal wax dëgg yàlla kuñ gis mu rafetal ko dafay doon ku ñépp naw te man gisuma ne daal mustawa bu baax gënaa ci wa yuxtaru te dem na loru loo saahibuhu boromam ilaa yëkkoon jëm ci ba mu nekkat ka bi lay leen de mel ne aji taxan guddi almiksaar ka bi layli mooy léebu arab dafa léeb mu ne ku bëri wax mu ngi mel ni kuy taxan guddi kuy taxan guddi du mën a xàmmee matt goo baax ak gu baaxut ndax leer guy tax mu xàmme leen newu ji mën naa gis jaan sax teg ko matt laal ko mu lor naka noonu wax buñ ko wutalut xàpp duñ mën a tee segg li wax ak li jarul wax mën nañoo wax sax loo xam ne fay xañe jàmm te lii wax ju bëri lay doon aw jaali bi rajlin wala aji bijji way lër mooy borom ñuy dox ak tànk waxaylin ak ay boromi fas te itam daanaka boole sa bopp ak nit ñi la lii moo taxoon ma jox ko ngànt wa qalla ma salima te néew na bu muccee mikkasarun ku bëri wax a uqiila wala xàccee lees la hoo ñaal koy fakkatal léegi dañuy jàng loolu bu subaa ñi mottali kii bi muqaddima bi dégg nga mu ne ndax te wax bu bëree rek wóor moom dootu am almiksaar kahaati bi layli an nutqu zeynun wa sukootu salaamatun fa ida nataqta fala takun miksaara dañu noppi maa wax moom lañ def muy daraja waaye noppi moo wóor lu moo tax wax bu fi sosee dañu war a wax loo xem ah annutqu zaynun wa sukootu salaamatun fa ida nataqta fala takun miksaara wala in nadimta ala sukutin marratan wala in nadimta ala sukutin marratan fala tandamanna ala alkalaami miraara mooy nit dana wax ay yoon yoon su ma yëgoon du ma wax dara yoon su ma yëgoon wax nit dana wax yoon yoon yu bëri su ma yëgoon du yoon ne su ma yëgoon te lii moom kasratul kalaam yi du bu subaa insha allah ñi mottali ci muqaddima bi mën a soobu ci maqaama bi téere bu kii la nag bu baax la nag waaw moo jiitatun ton jiisu kullal wara walaw saraw fii daw i miskaati bi ah tey yow sama sori mu ne maqaama muy gisa la moo jiitatun ton jiisu kullal wara walaw saraw fii daw i miskaati bi bu nga xamee ne dimbalewul bil iqaalati ci xàcceel wala axfaa te jéggalewul minal maqaalati ci wax bi nga xamee ne ngantalu naa te ngantaluñ ma la baytu hayu naa daawatahu wooteem talbiyatal muti hayu wa badalto ma fi mutawaati yi ci toppam kattanal aji man mbir la mu xam ji bu ma ne mën naa ko na ci ba mel ni man naa ko waan sootu ma sos alama ànd ak li nga xam ne waa ni min qarixatin ci xel jaamidatin mu di way wa fitnatin ak xel mu di fay wa rawiyatin ak xelaat naatibatin bu daa ji xóot hmm. wa humumin ak njàqare naatibatin yooyu borom yi sonn lekk hmm. ma sos xam si na juróom fukk maqaama mooy amal am satu hmm. mu ne ma juróom fukki maqaama ci temps ne sama xel mi yu ko kal ci temps boo xam ne dafa ngëcc ci temps boo xam ne maa ngi jànkuwante ay njàqare yu mën a sonal nit waaw waaw surtout sos alama ànd li nga xam ne waa ni maa ngi jànkuwante ak min xari xatin ci xel mu da way wa fitnatin ak xel mu da aji warawiyatin ak xelaat madibatin bu daa ji ngëcc bu daa ji mm-hmm. xóot mm-hmm. humumin ak i njàqare naqibatin yi borom yi sonn le mm-hmm. xam si na juróom fukki maqamatan ci maqama ma amal juróom fukki maqama yoo xam ne taxtawi danañu làq ala jiddil xawli ci dëggu wax waxab lii ak ngóoranteem nekk ay maqaamaat yoo xam ne ay waxi dëgg a ngi ci nekk affaire suudur affaire waade ay waxi ngóorante ngi ci maqaama benneel bu nekk maqaama suudiya lay doon wàllu dëddoo àddina mooy lay nekk maqaamu juróomeel ak maqaamu fukkeel bu nekk hmm. maqaamu fukkahiya lay doon hmm. maqaamu juróom benneel maqaamu adabiya lay doon dañ koo jafeel hmm. wa daqiiqi lafdi ak aji sewi baat wa jazliyi ak aji dijjëm am na baat yu tumaranke ci luxa am na baat yoo xam ni daf neex nay xam Mhm. wa wararil bayaan ak way rafeti biral wa durarihi ak kàddu yu mel ne sa wóoru su durra mhm. wa mulahil adab ak way xorom muy helmul adab mooy mhm. nettali yoo ko wax xam ne buñ ko déggee dañ ko rafetlu wa nawaadirihi ak i naadiram muy nettali yoo xam ne dafay xaw a tumaranke déggee muy fa def ci yow beneen yëg def ci yow kontaan te def ci yow agréé mooy naatee comme li ñuy nettali ci juha ak lu mel ni li ñuy nettali ci ñeneen ñi illa ma jëm ci li nga xam ne wasaxtuha gañaa yele naa maqaamaadi bi ci moom minal ayaati ci mandarga wa mahasinil kinayati ak ak ak way rafeti junju mm-hmm. ak junju yu rafet yi ma mm-hmm. ci def wara saxtu te ma doronkaal ko fiyaa ci maqaamaat mm-hmm. yi minal amsaali ci léebu al arabiyati yay ko ju arab wala taibi ak al adabiyati yay ko ju adab wal ahaj yi ak i jam an naxwiyati yay ko jum naxwu hmm. wal fatawa ak ubbee alluxawiyati yay ko jum luxa hmm. wa rasail ak leetar al mubtakara yadu yum sant hmm. wal xutabi ak i xutba al muhabbara yadu yuñ gémmiñal mu yadu yuñ rafetal def naa ji ay kinaayaat yu rafet def naa ci ay ndéguy arab yu rafet def naa ci ay sew sew yu jëm ci almul adab def naa ci ay cax ci naxwu def naa ci ay hubbee ci luxa def naa ci ay rasaayil yoo xam ne man maa leen njëkk a génne def naa ci ay xutba yoo xam ne itam yu rafet la wal mawaaxidi ak waade almubkiyati yu de way jooyloo mm-hmm. adab ci waade yoo xam ne yu mën a jooyloo nit la mm-hmm. wal adahiki ak yu ñuy ree mm-hmm. almudhiyati yu de way soxlaal ak yu mën a reeloo nit mimma ci lu xam ne am laytu fite naa jamiahu mbooleem ala lisaani abi saydin ci làmmiñu abu saydin ak soroj ji may ko jug soroj hmm. waas nattu te ma wéet riwaayatoo solom hmm. ilal xaaris ibnu hammaam hmm. ki ma def muy batalul maqaamaati xam ne lépp moom lañ koy askanee mu tolloog abul faril askan dëri ca maqaamaatul hamasaniya buy fii moom mu ngi tudd abu saydin assaroji hmm. ki ma méngale riwaaya bi muy hmm. rawil maqaamaat hmm. maa ngi ko tuddee alxaaris ibnu hammaam albasri mu tolloog xeesam xeesam bu ba di Usmaan waxoon léegi nag abul fadil askandari ak xeesam nu xeesam kum ci mën doon majhulun la yuxrafu la ca waxoon kii nag abu saydin saroji xam nañ ko muy góor ga dikkoon ci banu haram hmm. ñenn ñi ne la tudd ñenn ñi ne la tudd hmm. alxaaris ibnu hammam moom boppam la ci jub hmm. ndax nit koo gis rek xaaris la nit koo gis rek hammam kullukum xaarisun wa kullukum hammam xaaris mooy kuy faggu hammam mooy ku ah kullu insanin kasibun wa muhtamun bi amrihi man moo tax kullu minna harisun wa hummaam mu jël haris def ko muy turam def hammaam muy turu boppam turu baayam wa ma qasattu jubluhuma bil ihmaadi ci xeetale mooy tanwiihul azali fii ci haban lii illa tamsita qari'ihi nga rek sawar loo woy jàngam mm-hmm. wa taksira sawadi talibihi ak bërin mboolam woy sàkkum mm-hmm. def na ji ay fànni wax yu bëri yu bokkul mm-hmm. waxuma ne woy rekk la waxuma ne ay leetar rekk la waxuma ne waade rekk la waxuma ne mbërënt rekk la lu mu ci mën a doon rek dajaa dama bëgg ki koy jàng heure bu ne muy yëg lu xees mm-hmm. daan ca waxtaan ne ndax nafsul insaan yi dafa bëgg loo xees mm-hmm. dama bëgg itam ñu bari gis ne seen njëriñ ngi mm-hmm. ni man caa jëm su benn fànn rek moo ci nekk ci fànni adab yi kon ko fànn googu soxalu ñun bari am soxla dama taksira sawaadi taalib yi ak bëril mbooloo muy sàkkum walam oodihu denkuma ko minal asanri ci way alajnabiya te yay jàmbur hmm. illa bay tey ne ndara ñaari way fas say ne ñay kenn kenn hmm. asastu yooyu fondamaana alayhima ci ñoom ñaar hmm. biniyatal maqaamati tabaxu maqaama alxulwaniyati yay ko ju xulwaan wa axarayni ak ñeneen ñaari way taw amayni ñu day seex dammantuhuma yooyu làmbal naa leen mm-hmm. xawaatimal maqaamati mujji maqaama alkarajiyati ay ko ñu karaj mm-hmm. mu ne way woo ci gis nag mm-hmm. maag way su ma ñeenti way ñeenti way ñaari ñoom xànduñ bokkuñ fuñ leen jëlee mu ngi ci maqaama hulwaaniya mooy maqaama bu ñaareel ci maqaamaat yi ndax dafa am ay imtihaanaat yuñ cay def ci wàllu istihaara woy ba nga xam ne moo waral wax ja du wéyam woyu bu turi la mais muslim nulu walid ak wéy wa nga xam ne moom lay tëral da ca defee imtihaan wax ne ku mën na def bu du wéyam wéyu abul faraj wa alwa wa addimis xiila hmm. kon ñaari wéy lañ yoo xam ne bokk ñu bokk hmm. waaye nag ci lañ fondement mu xama bi la asastu hmm. fondement la alima ci ñaar bi ñeetal maqaama di tabaxu maqaama alxulwaan ni yetti bay ko jub xulwaan wa axarey ne ak ñeneen ñaar taw amay ne ñu dey féex mm-hmm. damantuhuma yooyu làmbal naa leen mm-hmm. xawaatimal maqaamati mujji maqaama mm-hmm. alkarajiyate bay ko ju karaj xam ne ñeneen ñaari way yu ci nekk yoo xam ne ci maqaama karajiya la nekk yooyu nag ñoo ànd moom naa ku ñëw a ibnu sukrata moo leen wëy mooy mm-hmm. maqaamu bu ñaar fukkeel ak juróom ci maqaamaat yi ku mm-hmm. ma ada zalika lu mooy loolu nag mm-hmm. waxaatiri sama xilaat abo xodri yi mooy bàyyi xéegam moo ko njëkk a abo xodri marati mooy góor gi ko njëkk a denc sama xilaat moo ko njëkk wa muqtadi xulwihi te mooy aji dagg aji neexam wa murri ak aji mexam lu ci nekk buñ ko rafetloo ci man la baxoo parce que buñ ko rafetloo ci man la baxoo hada li yëpp nag maasira fi ànd ak sama tuddu bi annal badi'a ci naka badi'a rahimahullah sabaakum ayatin jiiduha kon la ci dayo wasaayib ayatin tey borom yi kiimaan li yëpp ma wax ne def naa ko ci maqaama yëppin nag terewul xam naa ne jiitu ci fànn gi moom ba dimoon samaan xam na ko def nangul naa ko ko xam naa ne mooy borom màndarga yi ñuy niitoo itam ndax ku mën a def maqaama noose ni ci moom nga ko gisee waa nal mutasaddiya ak naka aji gaaru baxdahu ci gannaaw badiya hmm. li insaay maqamatin ngir sos benn maqama hmm. wala utiya donte joxeef na ko balaxata quddaama hmm. balaxab quddaama quddaama tum nu ku ràññee ko la ci dégg arab ak am balaxa mën ku jogati day defar maqama donte balaa xana ba mel ni xuddaama mhm. la yaxtaribu du mu tànqee illa min fudalatihi ndare ci ndefital badiya mhm. badiya xas na ko jiitu rek mhm. wala yasri te du mu rañaan dalikal masra ba wala rañaan illa bi dilalatihi ndare ci tegtalu badiya te itam ba li moom mooy doon sukkandiku kaayam mooy koy giiri ci yoon walil walillahi kéemaan ñaxal na yàlla darul xaayile barig soow ak ndey kawax barig yiw ak kawax lillahi darruhu mooy aka bërile lum baaxle darru kasratul la banin lay firi ci cosaan waaye dañ koy toxal nag di ko jëfandikoo ci kasratul xëy bi mm-hmm. yi nag loolu la mu ne falaw qabla mabkaa su fekkoon ci njëkk jooyam mm-hmm. bi ba kayitu laa jooyoon sababatan ngir sopp bi sonda sonda mm-hmm. safaytu kon ma saafara an nafsa bakkan qabla tanaddumi ci njëkk rëccu su fekkoon sunu daa ba mooy jooyaat damaa jooy ba noonu laa doon kontaan kon dañ xam ne cofeel gu jooy jooyloo nit mu ngi ci man walakin li fi nekk bakkat jooy na xam lii ca njëkk sama waxa yooyu da dal di jeqi li ñaar ma bukkaa jooya mi ak bukkaa jooy waaye daf ma njëkk a jooy mënatumay muñ ma jooy kon il faut dañ naan jooyam hmm. yi moo tax a jooy moom su fekkoon dama ko njëkk hmm. jamono génne maqaama kon dañu wax ne mustawa ko defar maqaama man xàgg naa ci waaye xas na ma jiitu fokk rek dañ naan ma ma daan fa ci sababu loolu kultu wax naa ne alfadlu ngëneel bil mutaqaddim ñaan na aji jiitu waa joo maa ngi yaakaar allah akoona ba den may nekk mm-hmm. fi hadal hadar ci bebent bi muy wax ju bari ji mm-hmm. alladi ji nga xam ne awratu rootal naa ko mooy andi naa ko mm-hmm. wal muridi ak re ak rootu waaye alladi bi nga xam ne tawaratu root naa ko ak mbir mi nga xam ne dikkal naa ko maa ngi ñaan bu ma ci nekk kal baaxi si demel ne aji gastu xanaat bi ci dee xam bi rëbbi ci wexam hmm. bu ma mel ni kuy gëstoo dee xam wexam hmm. wal jaade ak aji njoofe maari na am bi sukk bakkanam hmm. bi ka bi ci ténqam ak kuy njoofe bakkanam loxo maanaam masal la ci kuy yëngatu ci loo xam ne xalakum moo ci nekk wala gotti teem moo ca nekk mm-hmm. baa isaanaat fii bi xil fii mm-hmm. ñu ne gàtt la buñ tër mm-hmm. bëgg koo rendi paaka bi daal di réer ndeke dafa suulu waa ji wut gàtt paaka bi gisu ko ba mu ne fay tëri gàtt bi gàtt bi bi mu wéqoo rek ndeg méttik tër bi paaka bi sulleeku génn ñu rey ko naan baaxi sunu xaar fii bitin fii xëy na da doon yokk ndig noppalu coonoo tër waaye moo ko jural ñu gis paaka bi ren di kon kon yëngatu gi xala ko moo ñu nekk wal jaade amaare na am fii bi kap fii kasa bi jàng nañ ko ci maqasura timna dureydin mbiru judayma tunul abrat ak saba ak xasir ak amrun waadi xas yi ba mu waxee am lu nu àddina ko soo bëgg a fay dag may dóor njow suma nopp yi pour na buur bi am ndam rek hmm. moom mu de ci doxee laaw mu yëngatu ci loo xam ne sa gottee ko hmm. maa ngi ñaan liggéey ma xamaat yi bu mu dënd yi hmm. faala xasaw su suma yëg bi lax sëriñ na ci ñu gën a parfait xam nga dañ ndax kon damay bokk ci ñi gën a perte. alladina ñooy ñi nga xam ne dal la sànku na. sans yowum seen liggéey fi la yaati ci dund. adduniyaa balaa yu jegeen ci jeex. woom te ñoom yax si boona danañu jortu ne. am na moom la ko ñoom yax si noonu danañu rafetal sunu liggéey. moo ñi dem bu seen dund kasaara. ci lu dul dara te ñu foogoon ne ñu ngi ci leneen ñoom dañuy perte noflayu àddina ak bànneexu àddina te du tax ñu am njëriñu àllaaxira dëg mu ne nii la demee su ko dee ridawu naa si xaye tun la tun rek def lu xam ne moom lay sax loolu moom kenn mënu ko am mu tax naa la ànd ak man nag weyn ahmada doonte du moyu na hmm. lii ñaal ma alfatinu aji xelu almutaxabi ku daa ji def dof doflu hmm. mu ne ànd xam naa ne bu baax na hmm. doonte la am na ci nit ñi ñoo xam ne seen ak maana suturaam nit xàgg na ci ñu gis sikk ji téere bi duñ ci wax doonte loolu am na wana daha te daggi hante han ni ci man al muhibbu aji sopp al muhabi kudaaji faral kudaaji mayante mu ñoo xam ne seen ak mbëggee dana leen jaral faral ma dema doonte xam naa ne yooyu yëpp lu nekk la la akaadu duma jege axlusu de mucci min umrin ci dof jaahilin kudaaji réer aw fi remrin walla borom bañeel mutajahilin ku daay réerlu ku xamul adab dëgg dëgg dëgg te jàppul ne xamul songa ma mën naa nekk walla koo xam ne xam na waaye jubluwut ma mën da doxale insaaf sama diggante moom songa ma mën naa nekk ku xam ne yaddaxoo dana dana dana fippi mel ni ci man li haadal wax yi ngir tëral bii koo xam ne wax yi wax yi ma fent da cee dëgg dama wuta daaneel da wax ne li may wax ay fen la wayu na didu te muy yébaane bi ànd na woo ci naka tëral bii même mën naa yi sore mu ngi bokk ci yësarian tere du ñàkk koo xam ne moom defe xamam Mm-hmm. wala mbañeelam ci man mm-hmm. jaral na ko muy ma sikkalee bii mm-hmm. wax ne li ma def ay fen la te fen soriya dafoo bañ parce que nee abu saydin wax na te abu saydin waxut nee naa abu saydin def na nangam te defu nee naa xadi dëkk sàngam xatte na nangam te xatte wuñ ko mu mel ne ay wax yoo xam ne wax naa leen te buuteeg waa Mm-hmm. te loolu fen mm-hmm. mm-hmm. ah, la te bër fen sariya dagan na mu ne du ñàkk ku wax loolu waaw mu ne du ñàkk ku wax loolu waaye ba ma naqada ku gëstu nangu nag al asiya ay yëf yi bi aynil maaqul ci bëtëb xel waaye ku xoolee ci basiraam waa anaamat te mu jaaxal an nadara xool fii ma banil usul ci tëgguwaayu cosaan yi mu seet xeeti fànn yi nga xam ne udabaay yi dañ ciy waxe loolu ku ko def nadama mun noose haadihil maqaamaat ile maqaamaat fii tilkil ibadat ci buum ak jëriñi dana xam ne maqaamaat yi luñ andi la pour jox xam-xam nit ki rek hmm. pour xee ko pour niteel ko rek hmm. waaye du ko hmm. soob wax yu jum fent yi xan lañ ma waati jëlee ci way euh, way way way nekk yi amul xel mooy baxa im yéeg yooyu wal jamaadaati ak way nekk yi amul ruux muy ni ki garab yeeg yooyu mm-hmm. mu ne lu ma jiitu xam na ay bindkat mm-hmm. yu fi am mm-hmm. ku mel ni ibnul muqaffa borom ka layla wa dimna ak saddabaat sandabaat albarri wal baxri ci hikaayaatam ya ay wax la ñuy de ko haskane ay bahaim wala de ko haskane ay jamaadaat yu amul ruubu nawa ne ko nangam ndox ma ne ko nangam lëg la ne ko nangam loolu boo demee ci këlay la wa na moo ca fees dell boo demee ci kayaatu sant baat moo ca fees dell te ñuñ taxu doon kenn jàppee leen ay fenkat ca loola ñuy bind di ko askane ay nag di ko askane ay garab di ko askane ay ndox dañoo gis ne nag dañoo xeete rek te xeete bi ñu teg ko jaana mu nett di Hmm. Hmm. ku def insaaf nag na nga nangule xool ñooña ba seen wax yi jàppee xooleen ñu defem noonu ne nga may nangule muy suma maqaamaadi doomu si jàppee muy ku defem wasalaka dafay suma maqaamaadi masalakal mawduwaay amal mawduwaay su amul xel hmm. ni ki ay bahaa im ay xabak yooyu wat jamaa daal ak way nekk yi amul ruux ni ki ay garab ak ay tabax ak yooyu mm-hmm. walla mu yusuma déggeeful nag bi man ci koo xam ne nabaa bañ na mm-hmm. sama mm-hmm. walla muy bakkat loo ruwaataa way soloo maqaamaat yi fii waxtin ci aw waxtu ne la waxaati ci waxtu yi ku bëgg a gis ne nettali yi may def ci maqaamaat yi ay mbir la yu salte dañ ko war a seexlu hmm. muy sàkk waxtu bu baaxu da jàngale maqaama hmm. ko kenn déglu waaw hmm. ah, ko kenn déglu man du te génn sama liggéey du ko tee wane su ma ida topp bu nekkee al amalu jëf yi binniyaati ci xéene yi su fekkee jëf yi ci yéene yi la haju te ci la haju ndax loolu la yonent bi wax mm-hmm. wa bihaat sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wa bihaat nekk ci yéene yi mm-hmm. bari rek diinaa koy nangoo ci loolu la te loolu la nag faa yu xarajin ana ban bakkat alaman ma war koo xam ne saa sos na wala am ay wax yu xorom mm-hmm. li tam bii ngir rek mm-hmm. la li tam bii du ngir naxa mm-hmm. wana xaate mu jublu bi haa ci molax yooyu man xatta di jubluwaayu sellal mooy niteel nit ki lal akkaat yi du ay fen suba ki defar ay wax yu rafet ndég xee nit waaye nekkul naxe ak fen moo ko tax a hmm. ana ban bàkkaar moo koy war su fekkee mbir ci yéene la topp hmm. te moom mu am yéene bu rafet bi hmm. waxaal huwa déet moom fii zalika ci sos googu mu sos mu lax illa bi manzilati man dara mu nekk ci wàccuwaayu koo xam ne intadaba samp na mu li taalimin ngir xam ne rek aw hada wala mu juble ilaa siraatin jëm ci yoon mustaqimin wu daa ji jub kooku ñun niñ ko jàppee mooy ki toog di jàngal nit ñi rek da leen teg ci mustaqim benn mu am tiyaabu wala xamut tiyaabu waaye nag du xeew mbugal ca loola ndax loolu kenn ayewu alaa anna ni raadin bi an ahmilal hawa wa axlusa minhu laa alayya wala liya mu ne alaa na ni ànd ak man sax nag hmm. raadin ku gërëm laa hmm. bi an ahmila ci mahenu alhawa ba neexu bakkan hmm. waax lu sotte ma mucc min hu ci moom laa laya bakkaar warut ma ci wala liya tiyaabu ñaalut ma ci te sax man nit laa ko xam ne su ma amee li ma neex te bakkaatuma donte aw ma tiyaabu it kontaan naa ma amee li ma neex mm-hmm. te bakkaatuma mm-hmm. eh, donte aw ma tiyaaba sax kontaan na mm-hmm. léegi sax bu toll ni moo lëggéey maqaamaat bakkaat amuñ saa boobu ma ñàkk ji tiyaaba ah, waaw ah sax bu toll ni ma lëggéey maqaamaat saa ma ñàkk ji tiyaaba billahi ci yàlla atadit fi ma ci li nga xam ne atamit dana waa tasim te ci laa de musloo min maa ci loo xam ne yasim dana waa tafsit te ci laa de illaa maa jëm ci li nga xam yu mu gindi yàlla de muy lay moom laa de muy sama làqookaay te moom laa de itam muy sama tegtal wa billahi ci yàlla ah tadit fii ma ci li nga xam ne aatamit danaa ko jublu mm-hmm. wa aatasim te ci laa di musloo mm-hmm. min ma ci loo xam ne yësi mu dana mu ayibal mm-hmm. waa tarshib te ci laa di gindee ko illaa ma jëm ci la xam ne yusi dana mu gindi fa man maxsan wa déet wéedu illaa ilay ndaa jëm na ci moom wala listianatu déet dimbandeku illaa bihi ndara ci moom wala tawfiqu de dëppale mm-hmm. illa minhu ndara tukkee na ci moom mm-hmm. wala moo il de wéeruwaay mm-hmm. illa huwa ndara moom rek mooy mooy lépp xale yi ci am tawakkaltula wakiil way lay jëm ci moom unibu lay dellu wa bii jëm nastaxin dañuy dimbale ko wa moom borom bi neex jëkk bi maqaama benneel toujours rek zuhdiya lay doon mooy ay waade moo ci nekk maqaama bii nag mu ngi ko hakkan ci sanhaa sanhaa dëkk la ci yaman mu ngi bokk ci dëkk yi nga xam ne xamuñ ku leen sanci xamuñ dëgg-dëggit waxtu wuñ leen sanci ndax yàgg guñ yàgg ba weesu xam nañu dem ba ne fa dëkkee àddina bi mm-hmm. mooy ci mag ndax gannaaw galag nooxun gi mm-hmm. mooy dëkk bu njëkk sanc mm-hmm. moo tax mu tànn dalee ji abu seydin mooy waade de santaane dëddu àddina ba mu paree fam waade mu xam fu ko fekk mu ngi toog nguuram su ñu ngi tiim seen yàpp ak seen mooy waade bi ne haddasa waxtaan na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaaris mooy nettali qaal mu ne lamaqtaxattu ba ma jékkee xaaribal ixtiraab ci joggarey tumaranke loolu mu nekkee ci digg tumaranke xam ne yàgg ci ba mu sonnal ma te mën aguma ca jógee waan at nii te soril ma almatrabatu ñàkk anil atral walis maasi xam ne ñàkk tax na mënuma jaxasoog nit ñi ci yu bëri mm-hmm. ndax dama mën ñii ma yóbbu xaale te yu bëri buñ ko laajee man a joxe mm-hmm. lu ma ci jàmbure waan at te soril ma almatrabatu ñàkk xanil atrabi walis maas yi mm-hmm. bi loolu amee tawa xat sànneeku na biye ak man tawa ihu zamani way sànneekuy jamono yi illa sanaa il yaman jëm ci sanaawul waa mbirum jamono damayen ci may dox ba àgg sanaawul yaman wa daxaltuha ma tàbbi sanaa xawiyal wifaat mbirum ma daal di ci gafaka ma dem sanaa boo suma de bugga yóbbal dara ne badiyal infaat daal di feeñ ci fëggu te ku ma dana xam ne man mii jekkuwuma suma laa am li ko den may moom bulxatan bulxa bulxa mooy yëbbal bu la mën a jotale kan mm-hmm. loo xam ne mën naa koo téye mm-hmm. mm-hmm. fii ba ma xàggee barab sànni loolu xamat xam ne mën naa koo génne ci sama gafaka dugal ko ci sama gémmiñ loolu yaa gën a fii fa ma maqaras a jóobu di dagg turuqaatiha ay mbeddam mislal haimi kam aji gërëm su ma ñëwee nag lottu googu ak ñàkk fee xam kenn googu xel ma ci ma topp de sugi wurée damay dalay si mbedd topp ko ba mu jeex mu daf may ko dalee woon dañu jëlaat mel nit ku gëlëm rek ko xam ne dafa topp yoon ba mu jeex rek mm-hmm. mu dal dëppaat mu ko jëlee mm-hmm. waa jool may wëndeelu mm-hmm. fii xaw maatiha ci wàccuwaayam mooy ay këram jawalaanal xayam kem wëndeelu aji mar ma yurndoo ci kër yi ak dégloo buntu kër yi eh, nit ku mar rek ku bëgg am fu ñaanee ndox maa ngi dox ci mbedd yi maa ngi dikkal yenn barab yi waaroo du may gub mooy may sàkku fii masaarixi la ma xaati ci wëruwaay samay gendeeku li may xool yépp nag li may dox yépp nag maa ngi xool maa li may xool yépp nag sama bëgg-bëgg lii la waaw waaroo du may gub fii masaarixi la ma xaati ci wëruwaay samay gendeeku wa masaayi xadawaati ak doxuwaay samay xëy warawxaati ak samay gont li may dox du wan warawaaxan ak li may rog fii rog fale yéppam lii lay sàkku maa ngi sàkku këri man këri muy nit ku baax a baax ko xam ne bu demee bay def lu baax da koo def ndig baax na rek waaye kii defal ni dara ndég na dëgg ci dara ji moom nit ki kooku du karim laysal karimu hmm. alladi yuti atiyatahu ani sanaa'i wa in axla bihi samana waaw pour yow na koy wéyee ka bàkk rek moo tax mu yëkkati alalam da jox su xeboo mu joxe lu bëri waaye soxlam lay faj rek du karim hmm. waaw soxlam lay faj rek na la bëgg rek laysa alkarimu alladi yuxti atiyatahu ani sanaa'i wa in axla bihi samana kii ak koy bind ani sanaa'i wa in axla doonte seeral na wa in axla bihi samana doonte seeral na njëgam balil karimu alladi yuxti atiyatahu li xayri cheyin fi wastixsaanihi lxasana li xayri cheyin fi wastixsaanihi lxasana dafa rafet lu rafet rek la yastasibu du fayeeku la yastasibu bi badalil orfi magrumatan wala yamunnu ida ma qalladal الصياح ابن المعتصم ولا يمن إذا ما قل دل مننا ولا يمن إذا ما قل دل مننا ku mel noonu moom la góor mën a jëflante waaw ku mel mu ne la dox yëpp di wut ndax àgg naa ci soxla nit kon ku ma mën a defar lay këriman kërim nit dafa war a xam ku mu war a lépp xam ku mu war a ñaan loolu moo ci nekk waaw loolu moo ci nekk waaw loolu la nit dafa war a xam ku mu war a lépp ak ku mu war a ñaan waaw këriman kërim boo xam ne uxli ko danaa jox lëxoo ñaan ko diibaa jëti sama deru xar kanam waa boobu te ma tudd ilay jëm ci moom bi haa jëti sama aajo ku xam ne kërim la ma tawatal ko sama soxla doonte damaa am ci melal taxawaalu itam lor gi xeet lor gi àgg na te ku mun jar aw adiban wala borom xel mul adab wala boog su ma gisul karim ma borom xam-xam boo xam ne tufarriju dana yëral ru'yatuhu gisam xummati sama njàqare wa tur wi te dana màndarriwaayatuhu solom xullati sama maru sama mar wala ma dajeeg borom xam-xam boo xam ne boobu mën na ma wax li ma def kon daal dox bi dox bi yëpp pour mën naa xam dara ba hmm. xam dara hmm. waaw mooy dox bi yëpp loolu la hmm. mën naa xam dara ba xam dara loolu bu baax a baax waaw kuy dox dara nag xam dara doxul ndég na xam dara doxul dara ndax yéen gone yi ngeen gis rek bu ngeen ñu ngi yónni yónni dem bi kii am doxuñ dara daa war a dégg mu am dara mbaa mu xam dara loolu la waaw sabal ni ñuy jàng la waa no way way ñu daan bindal yaa ayyuhal ixwaanu usiikumu wasiyatal walidi wal walida la tuxmilul aqdaama illa liman kaana lakum fi waslihi faida imma li ilmin tastafiduunahu aw li karimin indahu maida a taalibe fay def fu ma jàngi wala fu may lekke bu ko dun amul soxla fenn aw adiban wala borom ilmul adab boo xam ne tufarriju dana yoral ruyatuhu gisam xummati sama njàqare wa turwi ta dana mandar riwayatuhu solam xullati sama maru konde xataa àddat nii ba joxe ma xaatimatul masaaf mu jëg wër gi waxaadat nii te gindi ma fatihatul altaaf njël benal ay ñëwét bi ma doxee ba ne tàyyi naa su may wax ne damay taxaw xam naa mooy cat dox bi waaye mooy njël benal am sens nag ci laa xàggee ilaa naa din jëm seen pénc ci laa xàggee ci benn mu nekk penc mu yaato yaatu muxtawin mu daaji làq ala sihaamin ci raj raj loo wa naxibin ak déjëntu waaye penc ma nag lu mu yaayaa te wut lool ndax na nit ñi bëree te itam lool ndax coow la warajtu ma tabbi xaabatal jami biir mbooloo ma ma noonu ko ma dugg ca mbooloo li axbura ngir naa nattu mm-hmm. maj la bata dame bi jiwaay rongañ yi ndax coow lu bari lii ak joy yi may ji si daal mm-hmm. li ko waral bëgg naa koo xam mm-hmm. fara ay tu ma fii buura ma toon fa walaytu ma tabbi xaabatal jame biir mbooloo ma li axbura ngir naa nattu maj la bata dame bi jiwaay rongañ fara aytu ma gis fii buuratil xalqati ca digg géew soxtan ak ab jëm soxtal xilqati ku daa ji sew ji jëndari ba ma demee bësës ma gis ñu ngi def benn daayira ci daayira bi benn waaye taxaw ci digg bi koo xam ne koo sew koo sew la alayhi nekk na ci moom uhbatu siyaahati yërey dox soo ko gisee naan lim lay nitu mhm. mooy ku fi dëkkut ku dox baal fi mhm. bagaasi doxkat la xame wala woote ñaxal na ko ran na tun ni yaaxate baati di jënd mhm. te itam moom mooy wax mel ni ku de noonu léeg-léeg wa woote moom yat ba moom mu ngee móolee alas jaa sajon yi bi jawahiri lafdi yi ci baatam yu mel ni wurusu jawhar wa yaqraw mu ngi fëggee alasma nopp yi bi sawajir waxtu yi ci way jajji waa dem mu ngi indi ay sañoo yu rafet mu ngi wax itam ay waade yu naaw yan noon aljan bi jawahiri lafdi yi xëy na waxi arab bi rafet jala yaqrawoon asma bi sawajiri waxtu yi xëy na hikma yi ñaaw hikma yi fasaxate nag sañoon mooy taxawaay mooy booy wax taxawukaay yi di dëppoo ni nga gisee fara ay tu fii buxratil xal xax muy xaaf sax san saxtal xil xax muy xaaf dëppoo ko wasili ci wenn xaraf loolu moo tudd sañoon dafa nekk ci diggante way ak wisal moom yet ba moom mu ngir móolee alas jaan sañoon yi bi jawahiri lafzihi ci baatam yi mel ni wurusu jawhar wa yaqra'u mu ngi pëgge alasmaa nopp bi sawaajir waxtihi ci way jajji waadeem wa qad ahaata timron léem na ci moom axlaatu sumar way jaxasooy mbooloo mbooloo yi ñu ngi ko wër ndoo mën a xeetu nit bu ne ngi ko wër ndoo mën a xeetu nit bu ne ngi loolu mooy lim bu la wax ihatatal xaalati kem wër ak pencam weer mhm. bil xamari ci weer weer bi léegi da nga gis benn daayira di ko wër léeg-léeg mhm. bu ko defee jant bi itam dana koy xam mhm. wala daa pencam jant ak pencam weer waaye araano da xaalatul xamari ak daaratu samsi bu jant bi moo ne arab daara lay wax bu ko weeri moo ne arab xaalatul xamari daaratu sami nawi di fiqhu luga xam moom nga ca dégg wal ak maami ak wërëg ay kàmboor bi hmm. samari ci meññet meññet buy bëgg fett noonu fi muy teg fi muy xam bi sàngam ñu hmm. ngi gisee meññet di ko xam bi maanaam xottu meññet di ko xam doom ba mu hmm. doom ba ci biir gis na daal mbooloo maa ko wër lool fa dalaftu ma jege ilayhi jëm mm-hmm. ci ma jege ko mm-hmm. li aqtabisa ngir na juumu mm-hmm. min fawaidi ci njëriñam naa waxi njëriñam yi ma am ci leer gu may gindee ko li annahu yaqramal asmaa bi sawajiri waxdihi loola tax wa altaqita ak ma fa baax da faraidihi lenn baatam yu daway wéet ak itam waxam yi li ciy farida mm-hmm. ba man ci am dara farida mooy di jëfandikoo baat yoo xam ne mm-hmm. niñ fi manee ñoom rek ñoo ko fi manee mm-hmm. bindkat dëgg moo koy def waa ji bindkat la ndax yaddumal as jaa bi jawahiri lafzihi loolu waal taqita ba'da faraidihi ma gis ne daal wàllu xam-xam waxi arab wàllu luy gindi nit daal ko jege man ko fi jëlee wa samiatuhu ma dégg ko yëqoolu muy wax xiina xabba waxtu wam ñàkkee fii majaalihi ci wëndeelu waayam dañ ko defal fu may baagante ba mu commencé di baagante waxadara te baatal saqa siqur tijaalihi puuriti jurim siq-siqam mooy puurit yi génn ci gémmi su wax bëree ittijaal mooy nga di def discours te li ngay def li ngay wax du dëng ko bind mhm. dara nekk di ko di jàng li nga mhm. waaye dangaa wax rek te bindoo mhm. waaye nag nun ci waa dara tabaata soqa soqur tijaani yi kuuriti jurim ma dégg ko mu ngi naan ayuha saadir fi xulawaayihi ba mu xag ayuha saadir ay yow mi ñàkk paar fi xulawaayihi ci jéggi dayo yow mi jéggi dayoo lool te li ngay jéggi jéggi dayoo sa yoon ne wut ci li ngay def ak saa ku de aji yoor soo ba xuyala i malaanam daagu xaaleem ar bu ne ngay doxee tollu naa nii mën naa lii xam naa lii yëfi rëy rek yëfi bàkku rek aljaamihu ku de aji fi jahalaatihi ci réeram ay xeeti réer dajee ci yow hmm. réeree sa borom ba ñemee ko hmm. ah réeree bàkkaar dawuloo ko hmm. réeree àddina def ku kër xeeti réer yooyu moo dajee ci yow gunc maa doon lu sori bu baax a baax ànd ak sa xel ànd sa wax ànd sa jëf aljaanihu kuraaji jeng illaa xusan bilatihi jëm ci neena yu bu rek waaw mënoo xelal lu ñor mënoo def lu ñor mënoo lu ñor yu caaxaan rek illa ma ba nag illa bi harafu bu ànd maam listifam lif lañ koy bindee illa ma ba nag te samiru ngay wéy rek ala xëyika ci sa réer wa te samriu ngay neexlu manaa baxyi ka sambay sag beew sa tooñ ñoradi gi nga nekk mel ni xamoo loo ko xab mm-hmm. tooñ ak loxoraane gi nga nekk muy sa bànneex mm-hmm. mel ni xalaatoo génn ci mm-hmm. foo ko xab mooy génn ci jot waxtaama ba kañ tatanaaha ngay jàjju fi sa ci sa rëylu wala tantahi te doo jàjju ma tatanaaha ngay jot dayo fi sa ci sa rëylu wala tantahi te doo jàjju an la wik wali safo a u rëy ak fontu gi nga nekkee hmm. kenn mënu la ci jàjji hmm. foo ko yemale fan la yem hmm. waa taama ba kañ te tanaha nga jot dayo ci sa wi ka ci sa wala tante yi doo jàjji man la wi ko li sax tubaari su danga lew tooyee bi maasiyati ka ci sa moy maasiya mooy muxaalafa maalika naasiyati ka aji moom sa njëxal bopp yàlla moom sa njëxal bopp mm-hmm. moom ngaa léewtoo ni ngaa léewtoo yéeg moom mm-hmm. mooy xuuteeg moom bu defal nga bañ a def mm-hmm. bu ne baal ngay def mooy maasiya mooy muxaalafa waaw waaw xuuteeg ni mu tëralee ci yow muxaalafa mooy maasiya mooy xilaaf mooy muxaalafa waaw mooy xuuteeg ni sëriñ a tëralee ci yow waaw bu ne nga def mu defal nga de baax loolu mooy lay soxaleeg sa yàlla yàlla ngay léewtoo te loolu rek ngay léewtoo ak moom watay tari u nga de jàmbaare joxu bi siratika ci ñaaw ak sa jikko ala xaalimi sariratika ci aja xam sa mbóot yàlla mi xam sa biir xol moom ngay jaay njàmbaar ndax jikko ji bon dina ci yow wata ngay hiidu am xaribika ci aji jege sa wa anta te yow mara raqibika yaa ngi gis waaye aji fuglu sa mi sës ci yow moom nga doxale tappale ci li nga séq ak moom te heure bu ne mu ngi lay gis heure bu ne mu ngi wata tawaara ngay hiinu an xaribika walis aji jege sa moo looy nëbbu wa anta te yow mara raqibika yaa ngi gis aji fuglu wata tax bi ngay nëbbu mm-hmm. min mam loo ki ci lu ñu moom mm-hmm. sax wa ma tax faa te du nëbbu xaafiyatun aji nëbbu mm-hmm. ala maliki ka ci aji moom sax liñ laa tuddee ne yaa ko xam nga ci am looy làq su ma ci defee lii nangam su ma ci defee lii nangam te loola de soxla dina nga bañ ko caa def te yàlla melam moom yaag loola sa dara humpu ko maanaam nit sama borom da ko bind hmm. def ko muy xolam hmm. ak jëm ji xol bi nekk hmm. mu jox ko wërsëg léegi nag mu am lu mu soxla ci xol bi moom borom bi xam lu mu soxla ci jëmm ji xam lu soxla ci wërsëg bi balaa ragal yàlla de mat nag yëpp nit ki ko ko jox xelal bu baax a baax dawaa alif laam min zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiina muttaqoona yi mu ne alladina yuminuuna bil xaybi al iman yëfi xol la wa yuqimuuna salaata yëfi jëmm la wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna yëfi wërsëg la junjële ci ne nit ki balaa ragal yàlla di mat dafa war di ba xel yooyu waaw xam ne ko bind da ko muy ak jëmm ji xol bi ne mu jox war rek xamee ci moom yàlla ne yooyu mu def ki nag lu ci mu am lu mu wax nit ne ko soxla naa ko ci subaan nit nag pour mu doon ko ragal yàlla yooyu du ci di mu dara dafay sellal yëpp rek mu ne ko sellal gi nga bañ nga bañ ndax da ngaa jortu ne an naka luy mbir sa mm. tan fon ka dana la jëriñ xaalu ka sa xaal mm. isa ana bu jotee irtihaalu ka sak laxas mm. fa nga foog ne juddu bu rafet ak muñ laa tuddal ak xam bayre ci nit ñeeg yooyu bu dee jotee fay tax nga neyaati yooyu du la teree dere sa tan fon ka dana la jëriñ xaalu ka sa xaal isa ana bu jotee irtihaalu ka sak laxas te amul noonu de xelum bu baax a baax ak kum mën a doon i'mal wa anta min ad-dunya ala hadarin wa'lam bi annaka ba'da al-mawti mab'uusun wa'lam bi annaka ma qaddamta min amalin yuhsaa alayka wa ma xallafta mawruusun rek mu am aw yunqiduka wala dana la xettali mm-hmm. maaluka sa halal mm-hmm. xiina toobiku ko waxtu waa dana la halak mm-hmm. amaluka say jëf bu demee ba yàq diggante mook yàlla mu dee dajeeg boromam ñii ko mbugal xalal jim xamoon ba ko fii ci àddina du ko wallu foofa de du ko wallu foofa de du ko wallu foofa de du ko wàllu foofa de xalaal kay ñi hmm. koy doon na ko lekk hmm. waaye moom kay du ko wàllu foofa hmm. ah ñi koy doon na koy lekk ah ab xayta maalaka mirason li warisihi ah xalal ji moom ñi lay doon do lekk nañ ko yàlla ita sienriya ma ab xaalakal maalu bëggoon naa xam nag moom lu mu la moom de fi mujj moom ak yow moom xam naa ko bëggoon naa xam yow fu mujj ak moom alqawma abqayta maalaka mirasan li warisihi ya layta shi'riya ma abqa laka almaalu alqawmu ba'daka fi haalin tasurruhum alqawmu ba'daka fi haalin tasurruhum ñaa jënd nañu oto ñaa tabax nañu itaas ñaa takk nañu soxna yëpp ci li nga fi bàyyi fi haali tasurruhumu fa kayfa baadahumu daara bika alxaalu yow nag na nga def alqawmu baadaka fi haalin tasurruhumu fa kayfa baadahumu daara bika alxaalu waaw waaw seetlu rek dégg nga abulataay yëpp moo ko mu ci sëriñ si def naa war war na man ñetti weer wala ñeent fa mu ko jëlee waaye mu ci si aw yoo nii wala dana jëriñ dara an ka ci yow na demu ko sa rëccu ida sallat bu tarxeesee xadamu ko sa ndëggu ne bu demee bay tarxeesi kaw siraat rëccu du ko fanqalati mbugal aw yaatifu wala dana yërëm alayka ci yow maasaru ka sa mbooloo yow mi yadummu ka bis ba dana la tappe maasaru ka sa panguwaay ñu lay nii dala reexal lu ñorut dala dëggalal ay fen dala waxal luñ xamut ndég bëgg a lekk li nga xam buñ demee ba yowmal qiyaama muy sa diggante ak sa borom doo ci gis kenn doo fa aw yatif wal dana yërëm alayka ci yow maasaru ka sa mbooloo yow mi yadummu ka ba dana ko ta dana la tàppe maasaru ka sa panguwaay ngu baax a baax xam nga nit ba mu tëddee ci ruuhu mu ndeem moom kenn rek la woon ba mu fa bëgg a baxoo dikk ci alam bi moom rek moo fa jógee topp yoonam dikk suñ demee ba nga ne li war a nekk jeex na ci beneen xaalam jot na moom kenn moo fee bàyyee ko rek topp yoonam dem foofa su boobaa ka muy séqat moom kenn rek muy séqat su boobaa nag diggante si nag ñi fiy gis waruñ koy fàttaloo la jiitu woon waruñ koy fàttaloo ëllëg waaw <laughs> waaw nii de la demee waaw nii la demee moom mu ndeem moom rek moo ko tuddoon kenn nekkutoon di ko wettali waaw ba jógee fa jotee dikk ci alam bi moom kenn rek moo fa jógee di topp yoonam dikk kenn ngiwu waaw loolu bu baax a baax bu nee ba li mu jeex itam nag dem feneen jot moom kenn rek mooy top yoonam dem waaw kenn du jar nag ñenn ñenn ñi da la nax da la aw yatif wal dana yërëm alayka ci yow maasaruka sa mbooloo yow mu yadummuka bis ba dana la tàppe maasaruka sa panguwaay xallante haj te tere nga suubu rek mu hajjata ti day ki sa gindeeku tere nga teg sa tànk ci mahajjatul bayda mi nga xam ne mooy sabilul huda te nga teg sa tànk mooy nga fonk sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam waa jël te nga gaawee mu alajata day ka garbal sa jàngoro mm-hmm. jàngoro njubari gine ci yow mm-hmm. nga fexe gaaw a ci faj ko mm-hmm. jaxasoo ak yi jëfandikoo garab yi ñu lay jox mooy nangu ak nit yàlla yi te tegee fi ñu la teg fi la tegloo wa falal ta te nga dagg sa baatan ñëw ka ak sa jàggati rob bi ngeeroom fi nga war a xem loolu nga xeex ku génn ci léegi wa te nga jàjji nafsaka sa bakkan fa yemum sa ak akbar moo gën a màgg ci say noonu dafa nekk koo xam ne lu ko neex rek la xam te dëgg dafa wex ci moom subaana li may bëgg nag mooy da liggéeyloo nit ki rek yi ko neex mooy tax bu ko nit toppee rek day mujj rek dundam kasaara ji lu amul njëriñ amal ximaamu xanaa mm-hmm. mm-hmm. du dee miaadu ka mooy sa dëxal du dee lañ la dig aha kañ di fama i'daadu ka la ko xadul te war nga ko xadul gannaaw yaa ngi fi xaale ah bàyyi ko xel rek ah badir ila tawbatil xalsaayi e mujtahida mm-hmm. wal mawtu way haka lam yamdud ilayka yada waaw mu hmm. hmm. ila tawbatil xalsa yi mujtahida hmm. al xalsa day al ah, mujtahida badir ila tawbatil xalsa yi mujtahida wal mawtu way haka lam yamdud ilayka yada waaw gannaaw ñu la fi baxaale lam yamdud tàllul ilayka yada tàllul la loxoom waqub min allahi waadan laysa yuxlifoo te ngay bàyyi xel ëllëg nag la budda min injaasi ma waada fokk si rek ëllëg dana ñëw la budda min injaasi ma waada ni de la demee amal himaamu xanaa du dee mihaadu ka sa dëhël la fa ma i'daaduka loo ko xadu wa bil masib xanaa nekkul ci béjjaaw inzaaruka sag waat fa ma inzaaruka lan mooy sangant dama ba kawar bu weex feeñu muy teg la ndaw jeex na ana looy waral layeeti ne suy fa ba am juróom fukki lépp lu mu ne fa ko war a ba te jublu ci yàlla wa fi de xanaa nekkul ci bàmmeel ma xiilu sa saxuwaay aha kañ di dafa nekk ak xarit mm-hmm. dafa nekk ak mbokk mm-hmm. dafa nekk ak alal mm-hmm. sa jëf rek nga fay nekk fa ma xiiluka lan mooy sa wax na waylallaahi xanaa jëmut ci yàlla masiruka sa mujj ah kañ di jébbal boromam rek fa man ana kan nasiruka mooy kan moo la fay dimbale kon nit ki war naa xam ne rek diggante moog yàlla daal warul nangu nit ni moom hmm. de ko ci temps def loo wóoru hmm. talama e xadaka yàgg na bu la xeexee addahru jamono hmm. fatana asta ngay gëmmentu gëmmentulu heure bu yaa ngi gis loo xam ne war nga caa mën a waadoo waaye danga nga tànqam lu rek wajadabaka yàgg na bu la ñoddee alwaxtu waadee fataqaasta ngay dër dërlu heure bu ñu ngi lay wax lu ñor mm. loo xam ne war na lay jàjji mm. waaye da ngaa dëgër bopp rek mm. wata jëllat yàgg na bu feeñee la ka ñaal la xalam yi fa temps te ngay gumba gumbalu heure bu ne sa bët tegee ci loo xam ne boo ko settantaloon da nga gis dëgg muy dëgg nga de ko topp nga gis caaxaan muy caaxaan nga de ko ba waaye da ngaa dumayu rek li sa bët bi tegee nangu woo ci liggéey loo sa xel waasasa yàgg na bu leeree la ka ñaal la alxaqu dëgg ba tamaarayta ngay sikk sikkulu lii dëggu gu leer gis nga ko gis nga ay bayinaatam waaye da nga da nga da nga dumoyu rek waas karaka yàgg na bu la fàttalilee almawtu dee fatana sayta ngay fàtte fàttelu heure bu nekk lu lay waat mu ci sa pegg waaye dangaa dum moyu lépp lépp rek ndég rek bëgg de topp sa bànneexu bakkan rek te na ibadatul hawa sir ku dëgg la te ni su fekkee hawa mooy mooy yàlla kenn du jagal mbiram rayta man ittaxada ilaahu hawa du sotti wa am kanaka yàgg na bu la jàppandee mm-hmm. antuwaasiya ba nga dimbalanteer mm-hmm. fama asayta dimbalante hula muwaasatul muhtajiin bëri na loo koy fekke man caa bokk doo ca de nango bokk almuwaasa mooy ndimbal loo xam ne daanaka ku mën da sàkku tiyaaba di def ngir yàlla rek du ko dem mën a def xam nga tey kii mbokk la feebar na ku war a faju la lu waay mënte yàlla tax rek hmm. na ko def hmm. ñu dimbale ko hmm. ndax mu mën a faju suba yow doo ci soxla moom mu tàgg la doo ci soxla moom mu xam ne yow def nga ci dara doo ci soxla mu xam ne am na nga ci maanaam nga ci am benn taxawaay kii liggéeykat la la mu liggéeyoon yàqu na ndax dafa lakkale ndax taw bee ko lekk lu waay man na ko dimbale ndax nit faggu am waaye nag mënta ñàkk doon lu faggu bu yàqu nit mënta ñàkk xeeti ndimbal yoon la mu waasaa yu mel noonu daanaka kuy sellal rek moo ci mën a bokk waaye ki nga xam ne moom kay na ko nit ñi yéem na ko nit ñi bàkk rek moo ko tax di génn xaalal yooyu bu ko fekkee du ci def dara waaw du ci def dara waaw waa am kanaka yàgg na bu la jàppandee antuwaasiya ba nga dimbalanteer waaye fa maa aasay te dimbalante la toosiru danga tànn hmm. falsan koppar hmm. tooxee hi boobu danga ko ndabal hmm. alwiha u mooy ndab awaha mooy fenelab ala sigrin ci siikar taxee hi wow danga ko mokkal alwaayu mooy yëg sala ay butt yoo def ci sa porte-monnaie balaa ëllëg mu jeex moom nga gën a def ci sa xel mi mm-hmm. lu baax looy jaamoo yàlla mu mën a defar sa àddina mm-hmm. defar sa àllaaxira mm-hmm. wa taaru danga tànn nag xasran njindi tool yi loolu danga ko koweel ala ci njëkk tool yi loolu danga ko méngale mooy danga ko joxe de tabax immeuble bu ñoo xéem te wax ba nii la tolloog na leen la toll na la toll loolu mu gën a mu gën a def ci sa xel lu xam ne ak jaamu yàlla la lay fekk xelëg ci sa am-xam waaw soxla diina bokk gi jaami yàlla yi loru yi sa yoon nekku ci ñoom waaye na nga def lu bëtu rek waaw selon bu baax baax te bokk gi jar na bàyyi xel soxla diina jar na bàyyi xel njaboot ak yàlla gëm la gàcce dara jar nañ bàyyi xel waaye yooyu sa yoon newu ci yow daal del tabax muy gudd rek ñaan fu ne nga fa tabax bi fu ne am nga fa lii fu ne nga fa laa rek wa taxtaaru da nga tànn nag xafran njindi toon liihi loolu da ko koweel xalaa birrin ci njekk too liihi loolu da ko joxe wa tarxabu da nga sib mm-hmm. had haadin walis aji gindi tastahdihi kook da nga sàkkoo ci moom njub mm-hmm. alhidayatu hada yahdi mooy fi'lam mm-hmm. illa sadin jëm si yóbbal mm-hmm. tast tastahdihi boobu da nga ko mayu alhadiyatu may may hada yuhdi hidayatu gindi hada yahdi alhadiyatu may hada yuhdi ku lay layee biir tegtal la yoonu njub ko bëggula koo gis danga naan dafa gëm dóori falsafa dafa mën a sonal nit ñi dafa bëgg daraja yooyu nga koy wax waaye ka lay jëndee si poñan nag ku gàttan nga jëm lu ne ila saadin jëm fi mu yóbbal te sa di ko mayu wa tuxallibu danga notal xubba saw bin sopp malaan tastarihi moom da koo ko faytu ala sawabin ci yool tastarihi moom da koo ko jënd suma piis sàngam suma piis sàngam yi gën a def ci sa xel ci looy xamee tiyaabo xotti na yére bu mel nangam xotti na yére bu mel nangam aleykum salaam yawaqitu selaati wane wa bu danga notal hubba sawbin sopp mala tastahihi moom danga ko faytu ala sawabin ci yool tastarihi boobu danga ko jënd te nag wax dëgg yàlla nit lu mu xamee tiyaabu war na ko hitteel de ndax bu fi bàyyee ko fu may dem du fa dellooti du fa jógeeti te foofa duut fu ñoo faggoo dara loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom de ak waa këram ñoom tiyaabo ñoroon na leen daw mos de julli ji romb soxnaam Juwayriya ca fam toog jàmm yàlla moo ko fa taxa toog yonent bi nekk fa doon jàmm yàlla ba jógee dikk fekk soxna saa toog mu ne ko ba tey mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi baal yoo de su fekkee wax nga ko fukki yoon su fekkee wax nga ko dana duubal li nga fi def soo waxoon subhaanallahi wa bihamdihi haddada xalqihi wa rida nafsihi wa sinata wa sinata hmm. mu ne ko loolu rek de duubal na li fi toog yonent bi moom yooyu la yooyu la jëmmaloon yooyu ci daan yar nit ñi asaabu nabi yooyu lañ jëmmaloon waaw tele bu baax waaw yooyu lañ jëmmaloon waaye léegi nag loolu amu leen ci soxla dafa tuxalli bu danga notal xubba saw bin sopp malaan te moom danga ko jand ah, tastarihi moom danga ko faytu ala sawabin ci yool tastarihi boobu danga ko jand yawaqitu silaati way foori may alaqu moo gën a xaju bi qalbika ci sa xol min salaat salaati ci ay waxtu julli affaire diw sàngam def na nangam ci xalal wa muxaalaatu saduqaati seerlantey can a dugg ci néegab jigéen dafa pasar pasaree xalal ñaan lam def ca ngoro ga nag yam fa rey ak noos moom fa noos yooyu aasaru moo gën a tànnu hendaka fi yow min muwalaati sadaqaati ci joxe ay sarax loolu moo la gën a li nga xam nga seet lu xam ne soxla diina la nga def ko ca te yàlla tax nga seet lu xam ne na ci bokk nga ko ca te yàlla tax nga seet loo xam ne soo ko defee ci njaboot ak yàlla gi mu doone liggéeyal nga yàlla ci lim la jox nga def ko ci ñoom te yàlla tax mm-hmm. yépp mënuloo ko mm-hmm. la ko def mooy lële moo bakkane mm-hmm. te yow bakkan ngay liggéey selu bu baax baax bu baax a baax wa seerlantey can waa nekk dugg ci néegam jigéen dafa pasar pasaree xaaral ndég naan da gëroo ñaa lam def naa lam def naa asaru moo gën a tànnu xend ak fi yow min muwaalaati sadaqaati ci maye ay sarax moo la gënal dugal xalal ci fooy amee tiyaabo luñ naan soxla diina la luñ naan ak bokk ko laaj luñ naan def ko ci jaami yàlla yi liggéeyal yàlla la ci ñoom wasihaaful alwaan ay bagaani melokaan mooy ay bagaan yu def ay xeeti ñam yu bëri yu bokkat yi ay palaat yu yu bëri yu def yu bëgg yu bëri yu bokkani mm-hmm. yooyu asaab mu hëpp bànneex ilayka jëm ci yow mm-hmm. min sahaifil adyan ci téere diina yi mm-hmm. moo la gënal jàng téere booy xamee sa diina Seydina Omar radiyallahu anhu dañ ko mos a indil ak ak naan xañ na ni doon ak li ñoo ndox am gala ndax sarabun musallaj moom la mu ne insilu hanni xisaabaha mu ne yóbbu leen ko daf may sonal ci lay wax ëllëg su ma ko fi naanee su ma dajeeg borom mu ne mun nga naan ndox mu def nag ndox mu def nag ndox mu def nag <laughs> mu ne idaa maani fii inaayin la akulu mu ne benn dam ñaari dënn dama ko boole lekk mu loolu waaw bu baax ay bagaani melokaan asaa moo gën a sopp ilayka jëm ci yow min saa'ibil adiyaan ci téere diina yi wa du'aabatul aqraan mbóoranteeg maas yi aanasu moo gën a wéttale la ka ñaal la min tilawati alquran ci jàng alquran nga de jàng alquran mu wóor ne waxi yàlla ci boppam yow mu ngay nettali yow duula mu tëkkalim bi waaw waaye waxi yàlla ngay nettali muy si la bu gën a dëgër ci diggante jaam bi ak borom bi su fekkee ko yàlla rekk lañ bëgg noonu la demee muy lu xam ne deferu gune fa ci xamee qad jaat mawhidatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil muminin mu doon lu xam ne ñépp ko soxla taalib bi soxla na ko sahir bi soxla na ko wasil bi soxla na ko waaye yépp mën ko jox gannaaw muy waxtaan wu dul jeex su ko defee dafa rafet ci jullit bu nekk weer bu nekk na fexe wàcc ci wàcc ci kaamil waaye toog lu mat weer doo wàcce kaamil benn yoon daal ku koy def daanaka sa nim si ci alquran yaa ko xam waaye ni ñu bëri mu xamuñu ko te nim si jullit ci yonente bi ñu koy peesee Alaaji Maalik wax na ko ci xilaasu zahab mu ne innal quraana huwa al mizaan waaw innal quraana al quraan huwa al mizaan mooy peseekaay mahabbatu nabi ci jullit yi taarifu minhu maa hawayta min al aswaaqi wassadami yaa xamee sa cofeel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee yow mën a toog bi boo jàngu dara ci al quraan boo ñëw ne sama liggéey bi doo toog gis nga seeti wala ne sama liggéey bi mën ngaa ñetti weer doo hmm. ah, hmm. ni la dëgëree ci diggante jaam bi ak borom bi hmm. waaye léeg-léeg rek koy baax taamur yaa ngi digle bil xor bi ci lu baax watante yi ku ngay xotti ximaahu kada yaa ngi digle lu baax te jëfoo atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tax mii ngay xaare xani nukri ci lu bon naan nangam baaxut wala tatahaamahu tahaaru wolof waaye mooy wolof wutu tax si yow ngay sori lool xam ne sul mi walis tooñ su ma tax saw topp yow nga di ko dikkal nga xëye nit ñi tooñ di ko dikkal wa tax saa ngay ragal a nit ñi su ma defee nangam kon dana waral dootuma mën a tee def nangam ci ñoom lu nga ragal ci nit ñi dégg rek xam lu looy bañ mu dal la ci ñoom wala xam looy bañ a looy bañ a ñàkkee ci ñoom wallaahu te yàlla xaq moo gën a xëy an tax saa ba nga ragal bu ko defee ni jàng wéy yi bu subaa insha allah ñu mottali ma su maansa su maansa da topp musaddadan moom waadekat bi mu ne tabban li taalibi duniyan sana ilayham sibaaba ma yastafiqu garaman biha wa farta sababa walaw dara lakafaahu mimma yarumu subaaba tabban halaku li taalibi duniyan ñaal na kuy sàkku àddina ku xam ne sana lem na insibaaba wa jëngam ilaa jëm ci àddina nit su fekkee dafa jëmmal duniya rek kooku ala ko lay doon ma yastafiqi du mu xitti mooy du ximmaleku wala man ngir sopp biha duniya ba fanta sababatin ak jéggi dayoo cofe xam ne duniya dafa jël xol bi ba xeri xam ne lii ci la waran sakrataani hmm. sakratuhu bil mawt xubbuhu bil haysi wa hmm. sakratuhu bil maali ñaari yooyu si man te man leen dee xëy man di ci bëgg xam man di ci bëgg dund man leen dee xëy loolu nag ku dee xëriwul ci moom lañ ngay yenu su ñëpp yenoon nag alamu bil maali pexe yooyu ci lay ne waaye su ñëpp yanoo alama bil maaruf bi alama ne an mun këram day jeex day jeex day jeex dem dara te su xamoon la kafaahu kon doy subabatun lu néew même maa ci li nga xam ne yëroomu dana ma ko te su xamoon mm-hmm. ni mu jëmmalee àddina nii du ko nam mm-hmm. konoon ñaari yëf rek ko ci doy mm-hmm. dirhamin lil maasi wa hasanatin lil maadi waaw ah, ko am xarit ci loolu lay nekk waaw ah, toppta nekkam ak itam góorgóorlu liggéey lu koy jëmee àlaxira àddina loolu rek la lay kon ñu jàng loolu alxaqilu man yasna bi say ayni fii dirhamin lil maasi wéye wéyi na xam naa fii la taxawee xemale fi kàddum summa innahoo topp moom labbada dalal na xajaajetahoo pëndam mooy bi muy bagante li mel ni pënd doon jog bu taxawee loolu dootu jog mooy bàyyi bagante bi waxa yada te mu ngiisal mu jaajetahoo taflitam yel bitam bi muy wax gémmiñ gi doon fuur ko noppee pour googu day bàyyi fii daal la yemale kàddum amul nuyoo amul masla amul santaate fii daal la yemale kàddum rek waata dada mu gàddoo sag watawoo mbuusam dal di gàddu mbuusam wataa bata mu bokk yara watawoo xetam dal di bokk xetam moom mu daal bi mu waxee ba daal la jël këmbam rek jël xetam ne mu ngi def wala maaranaat ba jaayee aljamaatu mbooloo mi ila taxakkusi hiraawo mooy xeet boo xam ne day am bopp wala maaranaat ba jaayee aljamaatu mbooloo mi ila taxakkusi jëm ci waajaayam bi ko mbooloo mi boo ne xam ne kuy waaj la war a at te mu gis taahu boo waajaayam li musaayilati markasi ngir tàggoog barabam xam nañ ne léegi mu dem adxala tàbbal na kullun képp minhum ci mbooloo mi yeddewoo loxoom fi jay bi ci poosam hmm. fa mu peesalal la ko ñaal ko sajlan baag min say bi ci mayam hmm. kenn ku ne yor na loxo ci poosam hmm. ah dal di dindi dara jox ko mu peesalal la ko ñaal ko sajlan baag min say bi ci mayam wa qaala mu ne ko ifrib soppatal haada lii fi nafaqatika ci sa dund bi aw farixu walla nga tàggale ko ala rufqatika ci sa sett kenn ku ne dindi dara jox ko na ko mën nga koo boole ci fere wi walla bu dul yow itam yaa ngi ànd nga jox ko xeet la ci teral ibnu sabil ibnu sabil mooy man taasu bi kamaa fan mooy ko a jóg mu kon nag dafa bokk ci dimbale ko jox ko dara bokk ko diit bi mu fi am lay tax mu mën a noppalu nga taxawu ko ca bokk ci dimbale ko fu mu jëm su fekkee xam nga yoon wi nga tegtal ko ko ba mu leer a leer bokk ci dimbale ko itam xelaatal ko demin bu hmm. gën ci moom ñu ne min ikrami ibni sabili hmm. i'taaquhu hmm. wa irfaquhu wa hidayatuhu wa irsaluhu ci la bokk la bokk daal <coughs> xëy na loola tax ñii da ko jox dara fa qabilahu mu daal de ko jàpp min ikrami ibni sabili i'taa'uhu wa irfaaquhu wa hidayatuhu wa irsaaduhu wa qaala mu ne ko ifri saqatal haada lii fi nafaqatika ci sa dund bi aw fariqu walla nga tàggale ko ala rufqatika ci sa setti wa qabilahu mu daal de ko jël minhum ci ñoom liñ koo jox mu ngi koo jël moo di yan daa ji du mooy waaye nag nanguwu koo xool lu ñu ko jox rek day jël rek dugal denc wan sanaa mu wàññee ko xanum walis let mos ni yan daa ji taggaleen wa jaxala mu xaraf yu waddimoo di tàggu man ñi nga xam ne yu sayyimoo danañ ko gunge hmm. ñi koy jéem a gunge mooy leen xem leen fi li yax ngir na nëbbu alayhi ci moom ma yow yoonam te ko moo jaadi la bëggul ñu xam rek bu yu bu muy tàggalee man ñi nga xam ne yat ba moo danañu ko topp li koy xala ngir na réeréef mar ba moo wàccu waayam benn benn bi koy topp léeg-léeg buñ demee ba ci kanam mu ne kenn yow mën ngaa yem fii buñ demee ba ci kanam wax leen mën ngeen a yem fii ba ñëpp ndax fa mooy jaari bëggun ñi xam ko hmm. qaala al xaaris ibnu hammaam xaaris hmm. nee na fattabaatuhu ma topp ko hmm. ma topp ci kawam rek mu waariyaan daa ji hiit anu ci waxyaan yi sama jàkkaarloo waaye nangu ma jàkkaarloo moom nag dama ko leer wa qafawtu ma xañtu israhu gannaawam min haysu la yarani fu xam ne du ma gis li nga damaa jaar foo ne moom du ma gis waaye fu mu toll rek danaa ko xam man laa ko toppee xattantaha ba mu xàgg illa maxaaratin jëm ci maxaara maxaara mooy néeg buñ liggéey ci biir suuf si waaw ci barab boo xam néeg bu mel fan saaba mu yooru fiiha ca maxaara ba ala xaraaratin ci yaatare ba mu àggee ca maxaara mu daldi dugg ndank fekk booba naagu na jàppatul ne kenn nga ko gis waa mu yooru fii haa ca maxaara ba ala xaraaratin ci atare faam xaltuhoo may yéexee ko rey sama xalaa dirab lu muy summi naa lay ñaari dàllam waxasala te mu raxasi lay ñaari tànkam su ma jëm du topp ma bettaale yi ci moom mu muñal ko tuuti kem loo xam ne raggu futti dal la raggu xañ na ci ma door a àgg rek bett ko ñu daf la jàngal nooy rëbbee nit nit su fekkee dafa dugg ci barab te nga hóolu fa dina dafa yàq soo ko bëgg a bett ca yàq ya dangay mujjandeku kenn kenn mu sóobu ca la ko fa tax dem waaye suy dugg nga dugg rek doo ko fekk gum ci dara kii itam su fekkee da ngeen toppante nga jëm ci barabam suñ demee ba àgg ca barab ba bu duggee da nga koy muñandeku as ndiir ndax léeg nit di dugg ci barabam fekk fa melokaan woo xam ne du gërëm keneen gis ko léeg nit di dem ci barabam xamee loo xam ne man de yàgg ak moom te bu àggee dañ ci ko la war a def mm-hmm. mu ñënde ko kem lu defet loolu nag mm-hmm. loolu la wax ne baax na fa am xaltuhoo ma yéexee ko rey lum summi nax la yi ñaari dàllam mm-hmm. waxasala te mu raxas yi la yi ñaari tànkam su ma ajam du topp ma bettan la yi ci moom fa wajattuhoo ma dal de ko fekk musaafinan mu daa aji toogaaleen yii nii ñuy suufi naat yi nga xam bu ñu gëppareeko mooy tegee ci suuf su ko def dafa gëppareeko def nii kenn gëppareeko dendal moom li tilmisin ñi alab taalibe alaa xub seen sa misin mu daa ak yàpp mbote xanii seen wari wuñu wàjj wari lakk mm-hmm. wa xubaale tuuma te nekk na ca mm-hmm. na bii daam saan ab sàngara <laughs> ba ma ko fekkee ca maxaara ba daal noosu ma ko fekk hmm. as ngóor la fa toogal xam na jombu taalibe lu wax ne moom la hmm. ñu ngi yor mburu moo xam ne ñu ngi ko lakk mu ngi wax tal hmm. ak yàpp mbote woo xam ne ñu ngi ko lakk ba ñor ca kanam ñu ngi ko teg dam sàngara fu qultu wax la ñaar ko ma yaada ay yow mii ay yëkkoonu ndax dana nekk saaka lële yaa fi doon wax sihaabul alwaani asa ilayka min min sahaibil adiyaan ndax loolu day nekk xabaraka di sa saayir loolu ngay wan nit ñi ne maa fi gën a dëddu àddina wahaasa nekk lii maxbaraka di sa bati nekkee waxuñ dëddu àddina waaye foo sax la koy wax loolu laa ko yow yaa waxee la ci mbedd ma dëkk bi ci rokk bi defee nii loolu laa ko ay yëkkoonu ndax dana nekk saaka lële waat yi nga waat nit ñi ay alwaan asa ilayka min sahaibil adiyaan ak yeneen ak yeneen xabaraka di sa zahir waxaada nekk lii max baraka di sa batin yow yaa waxee na ci mbedd ma dëkk bi juróoq bi defee nii loolu laa ko wane fa safara mu dal di fokkat safratal xëydi kem fokkat ak tàngoor mu ne dënn bi fokki mel ni tàngoor wuy forcé wakkaada mu jegeñ yettam may yeesu di xotteeku menal xëydi ngir mer dafa mer bay toj laa la wax tun mu toj wakkaada mu jege jëtta mu yeesu di xotteeku mel xëy di ngir mel wala mu yeesal dañut yu xam li xuddi rob ilayee jëm ci man léeg rek mu rob ma xataa xiftu ba ma ragal ay yestu ba mu songat xalayee ci man ba man mujj naa de wax ne kii na su ma bàyyi bu xel boogam yi daal ma an xabat ba fayee naaruhoo safaraam wata waara te hiitu waaru wa tàkkatam waaye dafa am yoo xam ne su ko du xam fu muy jaar ba faj ko xanaa mer ba mu yàgg mu féexal rek ba mu ba féexal lu mën a waxee nag waaw bala an xabat ba fayee naaru wa safaram wata waara te hiitu waaru wa tàkkatam am sadda sadda na dafa sadda muy seexrun ba yëngu noonu mu ne labistul xamisata abril xabiisa wa am sabtu sissiya fi kulli siisa wa sayartu waxdiya uhbulatan uriixul qaniisa biha wal qaniisa wa aljaani dahru hatta walajtu bi lutfi ixtiyaali ala laysi xiisa ala annani lam ahab sarfahu wala nabadat liya minhu farisa wala saraat bi ala mawridin yudannisu ardiya nafsun xarisa wala an saba dëru fi hukmi daa malakalu ma ala naqli mu ne labistu doon naa alxamisata mbubu ab xii mbir moom dana sakku alxabisata xabisa ñam wu neex la xeetu xalwa la man daal waaj naa samay waajaay ndég bëgg lu ma am rek waam sabtu samp naa sisiya samak onze fi kulli siisatin ci bépp jën man hmm. nag damay fexe hmm. ku ma mën a dajale su ma mën a nax nax la de nappkat la onze la sànni jën moom daal nag mu si mën a jot jot hmm. wa sayartu mujjal naa waxtu ya sama waade ux boolatan mu dig fiit boo xam ne uriixu danaa xoree alxamis rab bu góor bihaa ci wal xanisata ak rab jigéen mm-hmm. waade yi may waade jur mm-hmm. affaire bëgg dëgg mm-hmm. wala nekk ci dëgg moom ma ji pexe moom ma ko tax di def pexe la rek yoo xam ne dama ji dëgg di jëriñoo nit ñi rek waaw ko am solo jëriñoo ko ñàkk solo wax sa yartu naa wax ya sama waade o mu dég fiit pour yow bëgg danaa waree ak xaniisa rabu góor bi ay ci moom ak xaniisa ak rabu jigéen waal ja ani loru loona ma addahru jamono xataa walajtu ba ma tabbi bi lut fi ixtiyaali ci ñëwet sama pexe hmm. ala layti ci gaynde xinsa hmm. woo golam xinsa woo golam mooy dëkk hmm. wax dëgg yàlla dana xëy ñi ci diina ñaari wóoradi moo ci nekk wóoradi tappale ak wóoradi foye diir mu mel ni engagé gaynde de wóoradi fekk ko ci golam de beneen wóoradi mu ne xam naa li ma def danse bi ci nekk waaye dama àgg ci loru bu tax mun ma bañ dara waaw waal wéedu loon na ma addaru jamono xataa wala ba ma tabbi bi du testi ali ci ñu nga teg sama pexe maa hmm. lay ci gaynde ya soo golam hmm. ala am na ni ànd ak man hmm. lam ahab beguma sarfahu sabbatam wala nabadat te yëngatuwut li ye ñaal ma faritatun sat si xol minhu ngir gaynde googu te lii dugg dugg xama ci dara lu may ragal xama ci dara lu suma fi dema fekk gaynde ci golam mm-hmm. te xawma lu ma jaay ragal mm-hmm. sama lorom ba ma jeex mm-hmm. ala am na ni ànd ak man lam ahasabuma sarfoo soppatam wala nabadat yëngatuwut li ñaan ma farisatum daal si xol mi mbir moom wala saraxat soobuwut biya ak man nafsun bakkan xarisatun bu daaji xiir ala mawridin ci rootuwaay boo xam ne yu dan nit dana mu tilimal xabee hmm. sama hmm. nga xam ne jagut ci muru a ndax day kajamal der hmm. te man ne ci duut ñàkka duut xam lu doy ñàkk koo doyloo moo ma ci hen waaw dama loru mënuma teggi lenn moo ma ci hen wala soraat suuful biya ak man nafsun bakkan xaysatun bu daaji xiir ala moridin ci rootuwaay yu dan nisu boobu dana mutti li ma ne addiya sama der wala wan safa bu sellaloon addaru jamono fi hukm yi ci atteb jamono su fekkoon day seet nit ñi kenn ku ne laxee ci moom mu doxal ko ci moom kon lama mallaka du moom loo alxukuma àtte ala naqisati ñuñ wàññeeku kon ni muy doxalee jël ko du dara jox ko man-man ki nga xam ne wax dëgg yàlla ku ko joxoon man-man mu jëf mu defeer mu koñe ko man da teggi dara du ko doon def affaire bi jamono ko def xam nga dëgg na xam nga jum na waaye daal lay na mu ne ko lool su ma xaala topp mu wax lii ñaanoon mu ne ma ut nu jege sil fa kul da nga lekk noo ñëwal lekk ba im te boo nga wax boo bëggee ñëwal lekk boo bëggul demal demal waaw ne woon nag ci war a lekkoo waaw boo bëggee lekkal boo bëggul nga jox waaw lu la neex xaalis ne fal tafattu ma gestu ila tilmidi yi jëm ci taalibe ma gestu ngóor si manda wa qultu ma ne ko asamtu giñ naa alayka waral la bi man ci gën a xam te ko bi ma dañoo jëmee bii jëm ak aloo toog bi ren mii ma xamal man ana kan sama muy kii ma gëstu nguuram si ne ko may la giñal ni rek ma waxal ki may may giñ ci yàlla ni la lay tàggaleeg man mooy wax mooy yow nga wax ma ki may fa qaala mu ne ma haada kii abu zaydin asoro ji sirajul xuraba kii lampam ñu tumarange wa taajul udaba tey ndëppal borom xel mu adabi taaj mooy ndax mbaxanaam buur mu ne kii mooy abu sëriñ nga xam ne tum ñii tumaranke yëpp yëpp mën na leen a jiite udaba yëpp mu leen tii xaalis ne fan saraftu ma wëññeeku min xaysu ataytu tukkee fa ma dikkee woon wa qadaytu ma jeexal alajaba kiima min ma ci li nga ne raaytu gis bu ko defee ñu lu loolu beneen incha allah mm-hmm. maqaamam bi jeex mu ne ma daal di wëññeeku di yemu dem mm-hmm. foofu